gaal dëkku gaynde njaay mooy sunu gaal te ci junne tësin dëggal ma bësin bëgg naa leen bëgg naa leen di Sénégal dëkku gaynde njaay mooy sunu gaal mbokkee xarit yi maa ngi nuyu di leen ne meilleures bonnes et heureuses années at bi nekk atum jàmm atum naataange atum xewul waaye atum wér wér ak wérle ndaxte wér nag lépp ci la nekk ma leen di nuyu di leen jaajëfal di wax rek saa su ne ak bànneex la ñuy ànd rek daal di ànd ak les grandes ñu baaxoo di ko defee jeudi bu jot dañuy daal di dugg nag ci ñi nga xamante ne caabi da leen a féete ginnaaw ñu ngi leen di nuyu di ñaanal yàlla suñu borom yal na leen fa yàlla génne caabi daal di leen féete waat kanam ñi nga xamante ne dañoo tëdd ca kër ya tëdd ca lalu hôpitaux yi feebar yal na leen yàlla may wér ak wér la yëkkati leen yàlla fëgg seeni bo képp koo xam ne da nga am soxla mm. yàlla mi faj aajo yi yal nañu yàlla fajal aajo yi ci barke Seydina Mouhamed noonu lay ñëw rek ànd ak euh, les belles dames les grandes dames <laughs> ànd ak euh, debbo debbo pullo jontaaɗo joom yeeso ɓalewo euh, no wiya tan ñatamba e bonne heureuse année no fulɓe mbiyata sax bonne heureuse année poli ni ñu koy waxee ah, laaj naa ko demal rek ni ñu koy waxee moom. ba ñu ñu bonne heure sànni rek. ala hitaande bonne heure sànni rek. neno hitaande yow hitaande mbelde hitaande jam hitaande ɓamtam. waaw ma doo waxal répète. <laughs> très bien et toi maa ngi leen di ziar di leen nuyu bu baax a baax tey euh, di am mbégte dellu si ci plateau euh, seetu euh, Sénégal mais veut les meilleurs ci yéen ñëpp rek di leen ñaanal at mu naataange di leen ñaanal at mu neex at mu dàq at mi nu jóge képp koo xam te ne mbébét nga ci dara yàlla defal la ko te mu nekk li gën ci yow ci téléspectateurs yi également ma leen di wax bonne année déwénati leen baal leen ñu ak yàlla nañu yàlla boole jéggal ñu fekkee ko ay déwéni déwéni déwén besel maa ngi lay ziar bu baax merci Samba Jeeso Alejo euh, noonu lay demee rek euh, daal di ànd ak moom pour le débrouiller so jontaane mm. yow so danewo sehil euh, maam maam soxna mm-hmm. mado <laughs> hitaande mbelde hitaande jam hitaande cellal mm-hmm. hitaal ɓamtaare allah andi ko ɓuree ma yo allah mm-hmm. waɗan ɗum seydi diaw mbaɗaat selli aɗa selli mawɗum besel oppo kombatta ko a oppo kombatta ko ah, eh, voilà juule bo wuuri on jullu kewɗe mhm. vraiment comme ni nga ko ñaane rek maa ngi nuyu mbokku téléspectateur yi ku ci nekk sa tur ak sa sant naan la mbégte la saa su nekk ànd ak yéen mbokku téléspectateur yi nii nañ koy defee je pense que à travers ma voix damay topp rek sama nawle wala sama naataango yi ma bokkal plateau bi pour vous souhaiter nos voeux les meilleurs li nga xamante ne moom moo di baawaan tawfiix uh-huh. ni lépp askan wi parce que loolu rek moom moo ñu yitteel ah. ah, taw féex fu mu am rek léppay naat ba tax na maa ngi koy ñaanal képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo fi nga xamante ne moom moo di sunu réew rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci diaspora bi noonu lay demee rek daal di ànd ak chéri chimère moom boo tuddee chimère nag xol bi dafay daal di sedd guy <laughs> mu dem cuuba musóoram benn la moom rek moom amul musóoram ma ne ko kooku di Xadi Mbaye ne meilleur vœu yaa ngi si jàmm maa ngi sant bu baax tey waaw ci émission bu bees ci tey ni nga nii laa ko nii laa tijjee tey mhm. eh, di di leen nuyu yéen ñëpp eh, ginnaaw bi ma santee yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa di sant sama ñaari waajur yi di leen ñaanal fu ñu jëm gënal leen fu ñu jógee ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër yi hôpitaux yi mbedd yi géej gi jéeri ji tali bi jaww ji <laughs> lii daaneel lii daaneel Mado yal na ñëpp am jàmm ñi nekk ci hôpitaux yi ak ci ci ci kër yi ak ci mbedd yi ndax am na ñoo xamante ne dañu foog ne euh, ñi tawat ci hôpitaux yi rek la ñu nekk mm-hmm. am na ñu nekk ci kër yi ñoo gën a tawat sax ñu nekk ci hôpitaux yi ak ñi nekk ci mbedd yi mm-hmm. kon yal na ñëpp am jàmm ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam bu ci kanam bu ci kanam merci beaucoup ni nga ma bu ci kanamee tuuti rek ñu ñëw ci Khady Mbaye tey li nga xamante ne moom la ñu indil mhm. kon nag euh, di leen wax rek xam ngeen euh, Teranga Sénégal euh, télévision Futur Média dafa am nu ñu baaxoo di ko defee ak bu jot tey mooy quatrième édition ren mooy quatrième édition autant pour moi ñu daal di ci ànd ak suñuy partenaire lu ci mel ni bijouterie La Solution kooku di madame Nia xolu mad monsieur Nia kooku di Adji tamit maye nañu ñaari parure en or mun ngeen woote bu ci kanamee tuuti ma jox leen numéro yi waaye nag Adja Umbeliko ku xam yëre yu rafet yëre yu baax boo demee foofu ñoom tamit dañu bokk si suñuy partenaire euh, ki nga xamante ni rek mooy waa Kabires ñoom tamit nag bokk ci partenaire yi daal di joxe nag ay iPhone ak ay chambre à coucher lu bëree bëri donc noonu laa leen di joxe numéro téléphone yi rek ci Teranga Sénégal xam ngeen ren 30 millions la tekk teg bés bu nekk nag si émission bu ne muy ci rajo bi muy ci télévision bi mun ngeen cee gagné donc mun ngeen ñu woo si numéro yi ci émission bi en direct ñu daal di leen may li nga xamante ne rek moom mooy 200000 francs ngeen woote yéen a ko moom ngeen daal di jël li nga xamante ne moom mooy seen cadeau ci Teranga Sénégal mun ngeen ñu woo ci 88 628. 65 65 88 628 22 22 88 676 05 05 88 676 07 07 88 676 03 03 88 676 06 06 88 628 76 76 88 628 20 20 ci numéro yooyu ñu ngi leen ciy xaar ngeen daal di ñu ciy woo euh, caatu góor nag daal di yegg si xam naa léegi plateau bi daal di xumb moom nag mooy mooy mooy bavarde mooy bavarde ci plateau bi ma koy jaajëfal Awa Gaye euh, bavarde la mooy bavarde. jëlal sa micro. bavarde mooy lan. maanaam yow yaay wax. yaay yaay kii yaay perturbé plateau bi. waaw mais loolooy xorom si cin waaw ci classe bi. waaw loolooy xorom si cin la classe xam nga des fois xorom xaw sax noonu nga yëyaale ko. xam naa xam naa da ngeen may daj di ma yëy rek garaawul. amul problème <laughs> mais loolu toogee nii ci matinale bi ça va ah, ma. gis naa taxaw ni ñu xool ma bu baax. Eh, vous allez bien. ça les meilleurs vœux. happy moi-même. Eh, di leen nuyu yéen yi nga xamante ni eh, yéen nga soog a taal seen télé yi eh, di ñu seetaan voilà merci. Mhm. di ñu seetaan rek mbégte la saa su ne Gambienne sénégalaise sénégalais foo munti nekk am saying good morning. kon euh, kooku mooy Awa Gueye égale a elle-même saa su ne rek dafay daal di ñëwee filingu boppam tey nu mu ñëwee nag macha allah ñu koy jaajëfal lu bëree bëri di ko nuyu kon noonu la ñuy def rek mbokkee xarit yi dem seetaan benn clip daal di dellu siwaat ñuy xaar téléphone bi ngeen woote ñu jox leen si li nga xamante ne moom mooy teranga Sénégal yow yow nga di ma dee nit ñi kontaan waaye am na ñoo xam ne yóbbante nañ ma de grand nee nañu daal premier janvier bi war ngay ko xoolal parce que dañuy xëy di dem liggéey ñi ñi dem ci bureau yi di nelaw ma ne ko ah day war daal le 6 bi moom xam naa dina ñu mënul dem rek euh, le premier janvier ñu daal di préparé wu mun a dem nag euh, le 6 janvier mais ñenn ñi daleen di jaral ñu dem Bali daal di xëy nag euh, awee noonu dugal saagi ci oto bi changé waat yére. dem noonu heureusement que teel na commencé sax. waaw ren heureusement que ren moom dafa teel a mu jeex mu jeex man xam lu ma gën a nekk si affaire mm-hmm. Mm-hmm. mooy que euh, ñëpp dañuy ñëwandoor. ñëpp ñu bendoor. dëgg you know parce que da ngay gis yenn soirée da ñii di. teel a dem ñii di teel a nii ñi bay bi ñoo ñëpp a ñëwandoon ñëpp ay demandoon man li ma ci gën a neex a neex mhm. mooy nit yi public bi ni ñuy àndee mel comme dañuy répété woy cest à dafa voilà entre l'artiste da ngay dem ba nga xamante ne moom d'habitude day dem sax ba du sonnati da ngay mhm. gis ne day bàyyil ñu woy lay wax wax na ko ñaar yoon Mbaye Dieye Faye bàyyi leen ñu woy mhm. <laughs> ñu dem et puis man ça m'a marqué comme tu dis quoi c'est voilà ah ce qui la entre l'artiste et son public te dafa nekk leen loo daal dafa fort. Mhm. et man nag vraiment ci laay soog comprendre le concept du grand bal mooy li Awa Gueye wax. Mhm. gis nga bi ñuy ñëw nga gis nit yi di ñëwandu. mais surtout ba mu tasee. bi mu tasee ba ngay yéeg nga gis nit yi di génn ci ngay soog a rappelé wu te ngeen xale moi je rappelle quand on habitait au point e, le décembre tout le temps dañ doon def bal. mais mu mhm. tasee ba ñëpp génn nga gis koo gëjën gis ngeen kottante. ñi simi seen ay daal vraiment c' une boo xamante ne ne jàmm daal rek moo ñëppay saafonte kenn mais est-ce que xam nga am na ñoo xam ne at bi boobu rek lañ ciy baali pare lañ man am na ñu doon jënd billet fële ne la RFM bu ñu ñëwee que man at bi benn yoon rek laa ciy baali muy le premier janvier euh, man man ci la lépp xaj jël dugg ci biir nit ñi micro bi RFM uh-huh. euh, da ngay gis ay kilifa yoo xamante ne xoolal première dame ñëw waaye am na ñeneen kilifa yoo xamante des autorités ñu ngi woon ci biir oh, na benn autorité boo leen wane sama frère la man moo gisee la

xam nga incha allah ci kàttanu yàlla kii. Mhm. jàmbaar ji jëmm ji macha allah. Mhm. il faut que gars yi baal ko. Mhm. ak kilifa bu mu mën a doon parce que nag daf ñoo yàgg bégal. mbaa xam nga ne euh, li tax yu wey yi di yomb ci gars yi dañoo màggandoo ak moom. donc kon bu ne bu merci. bu ne bërët gars yi il faut que ñu fekk si ko. mais xam naa ne daal de toute façon. Euh, fii wàcc na keroog macha allah. kon nag euh, loolu mooy grand bal et c' est normal aussi parce que stress bi bëri na problème yi bëri na et donc de temps en temps aussi Youssou Ndour génn bégal askan wi. Mhm. nit ñi daal di répété waat woy yi te woy bu ma mënta woy rek. macha allah wéy bu yeete la waaye wéy boo xam ne la mhm. tey société bi dañ koy jëla ma li ma si gën a jaaxal. Mhm. dafa am ay xale yoo xam ne nii bi Youssou Ndour digooy xaajuñu lippali naa ñu ngi ci saarinde mii jaaga ñu ngi ci monde boo xam ne kenn xalaatu leen mais rétro yi ñuy déglu ci rétro yu sunduur yi man surtout sama xale voilà sama xale waa kër yi ku ci mel ni Binta Sali Balde dama leen di naan sax yéen wëy yi ñu ne ma ñun wëy yi ñooñu neex mu nekk wëy loo xam ne yu am solo la et donc mu nekk aussi nit koo xam ne euh, dafa liggéey ci musique Sénégal mais mm-hmm. rawatina ci àdduna dans le mm-hmm. monde entier et tey wëy yooyu nekk référence nit ñi di ko jëlee nit ñi di ko jëfandikoo euh, kon nag moom yi dañ koy daal di félicité la may wax sax saa su ne rek ñun dañu am patron ñu koy liggéeyal mu ñuy fay waaye moom dafay ëlbatiku di ñu bégal donc loolu ñun rek ñoo ko am moom ñu koy jaajëfal lu bëri bëri woote leen si numéro yi ñu leen wax si Teranga Sénégal mun ngeen gagné ci parure or mun ngeen gagné ci li nga xamante ne ay meuble ay chambre à coucher ay cuisinière lu ci mel ni tamit euh, li nga xamante dañ leen koy may voilà euh, dañ leen di may autant pour moi du gagné mais maye la euh, cadeau lay doon mun ngeen gagné tamit si iPhone 15 yi nga xamante ne rek euh, dañoo xew si jamono cadeau yu mag yooyu nag tirage bi mu ngi am dimanche kooku di Pape Cheikh Diallo moom moo koy def waaye balaa boobu. émission bu nekk muy ci rajo bi muy ci télé bi mun ngeen gagné fukki junni ren dañu teg 300000 autant pour moi pas gagné maye. voilà mun nañ leen may 50000 ngeen woote léegi léegi euh, si li nga xamante ne rek euh, moom mooy euh, ci émission bi muy émission rajo yi émission yi am si télé yëpp boo leen ñu woowee jotoo leen ñu. mun ngeen am li nga xamante ne moom mooy euh, cadeau bi parce que ci tirage bi nga xamante ne Pape da koy def dimanche mun nañu tenter ngeen ñu woo leen si seen numéro ñu daal di leen woo ñu may leen li nga xamante ne rek mooy euh, loo yu mag a mag yooyu euh, kon nag woo leen ñu si numéro yi nga xamante ne moom laay répété ñu tàyyi di ko kii xaalis bi neex na de heure bi nga xamante ne dëkk bi fi mu nekk nii moom dépense yi li ñu amoon yëpp dépensé nañ ko buñ la naree may fukki junni ah ma ne poche vide nañ vide nañu saagiraas nañ ah. mm-hmm. doy na waar de dana neex torop kon woleen ñu ci 88 676 03 03 88 676 06 06 88 600 628 76 76 88 628 20 20 88 628 65 65 88 628 22 22 88 676 05 05 88 676 07 07 ngeen woo ñu ci numéro yooyu nga xamante ne di ngeen ñu jot léegi léegi ñu may leen fukki junni euh, ci noonu la ñuy demee rek daal di Xadi euh, Mbaay mhm. euh, am na lu neex luy xeeñ sànq ba léegi. maa ngi naan lu ci mel ni ñook man daal. Eh, man ko doon dafa mën a dafa mën a yee fitna. Euh, mais mais mais bi sànq genre xeetu ñook man genre xeetu olive yooyu gis naa ko fi tey lan nga ñu indil mbaaya. comme sànq. Hmm. Madou dama ko menacé dafa sëgg mën a ko sigil. Hmm. lu tax loolu. noonu du épercule. épercule non non épercule. <laughs> léegi nag comme yow forcé nga ma. Ah. Ah. allahu akbar. yàlla xel de ñi xaw ma ku leen di sëñ. xaw ma ko ñii ma tëj. Ah, ma tëj ma tëj adduna amul solo daal. waaw mais normal fête la ñu jóge nag. dëngalal bu baax fête la ñu jóge nag Bessél. man waxatuma man. waxatoo mais bés waxal. ndax naat. ah mi ah, ngi nii mi ngi nii mi ngi nii. mi ngi noonu mi ngi noonu waaw mi ngi noonu. Zayna Zayna Zayna Zayna Xatta. Xadi Mbaye loo indi. Eh, Michwi. Miss Wilane. non non non non léegi lii dem de. Mado foo jëm da ngaa wàcc. Mado émission bi jeexagul de. fii lay jaaree. jaar taxaw taxaw. man naa voir que ça. waaw de. leer kilaam bi woon teew. aywa de. ana Mado. message dama wëri kii ñu teg moo gën de xam nga xam ne lu am solo ci mbirum ndawal gi waaw ñu xam kon kon baax na euh, Mado indiwaatal fii kii bi nga teg ko fii. man xam nga man jox kayit nee ma boo doog <laughs> delloowul ndawal bi dañ lay mise à pied. ay bindum kayit ak explication. explication mais man wàccoon naa demoon naa tey dama génn yëpp man daal waxuma dara ma damaa noppi. Hmm. man xam ngeen man lii moom moom. mais de bi mu ko gisee la tëdd ci mado. de je mange pas je mange pas la viande bokk na c'est bon quoi moi je veux pas la viande c'est bon c'est bon parce que bon xam nga rek. non bu ma euh, ok bu ma ok bëgguma bëgguma bëgguma kii. non non. léegi lu muy àndal. nee na bu ma paree defaral ko ci kayit. non moom du kii. est-ce que aayul ci yooyu. Ah, aayul ci non non man man si ay bopp jën la ay yàqu jën jën yi sax bugguma cher bi waaw du lekk ndawal waaye naan ñeex mi am nga fëlinaa mi yara ndiyam na yara ñeexam na du lekk yàbbi waaye naan ñeex mi waaw xaji nga ne loo indi tey dama def euh, euh, dama jël ginaar mhm. ak pentaab daal koy lakk pentaab rek mhm. eh, waaw gis nga ak pison mhm. pison mi ngi nii mi ngi la koy waneel. Ibou Cissé wàccee sa bii bu mag bi la de daa mel ni. numbe ko def ah. Hmm. la keroog laa ne leen bàyyi leen numbe mi ngeen di. Ah, ah, ah, mi ngeen di bay bayal mi ngi nii. Hmm. numbe Zac Mbao moo def nii tey. ne ma dama lay accompagner boo demee jàkkaarloo gaa yi. Hmm. ngeen def ca lu leen saf. yàlla baax na. léegi ub ko ba mu jekk. waaw tëjal waaw. boo lekkee ci ndab ubal ba mu jekk. te ba pare bëgg naa bu ci kanamee euh, technique de conservation bu mu ñëw dafa baax. parce que dafa jël li nga xamante ne moom moo di papier cuisson. Mhm. lëmas ko ci biir ba pare jël li nga xamante ne moom moo di papier alu. Mhm. te loolu yàgg naa dégg ni dafa mel ni xeetu waañ la ndax dafay garder li nga xamante ne moom moo di chaleur. kon na gàcce nga laa ma numbi kii toggkat la. accompagnement bi am na lan ak lan accompagnement. <laughs> Euh, am na olive vert mhm. salade. def poivron. Mhm. def euh, euh, tomate. concombre fraîche daal di def concombre. Mhm. bàyyi mu wàcc daal def sama marinade. bu sew bu ci biir ok man moom yooyu yëpp noonu dañ may kii rek euh, dañ may sonal daal. ñeex mi rek man baax na ay accompagnement yooyu ak salade ak ay tomate ak ay concombre ak <laughs> am naa sama benn frère maa ngi koy nuyu de passage mu ngi ba Kambowa bi ak Karahudo nee na ñax la moom <laughs> moom du xar du lekk. wax nga dëgg wax nga dëgg. maa ngi nuyu lu bëree bëri sama cousin bi ndey saraw saa yi ñëwoon kër ga ñu def fête yi salaat décembre salade ay eh, mi mi ƴakkaani ko huɗo um ɗum salaat yaade salade wiyena mbeewa ni walla mbaalu mi ƴakkaani huɗo mino salminoma depuis kambo maa ngi leen di nuyu di ko jaajëfal waaye léegi moo gën a bëgg salade nag bi mu ko ñamee ba léegi ñu marine ko kon nag jaajëfal euh, Khady Mbaye gis ngeen ko tey li nga xamante ne moom la ñu indil mm-hmm. euh, woote leen gaaw ñu may leen fukki junne yi ma daal di leen di li nga xamante ne rek moom mooy numéro yi ngeen daal di woote léegi léegi léegi nii ñaatam dina leen cinquante mille euh, sama sama sama caat bi may leen cinquante mille

06 06 88 628 76 76 88 620 28 20 20 numéro yooyu boo leen ñu woowee léegi léegi xaalis bi tege ni fukki junni yi yéen ko moom dañ leen koy jox kon nag euh, daa noonu la ñuy daal di daagoo ndànk ànd ak yéen dem seetaan beneen clip. di Sénégal Sing jërëjëf ni ko Mado waxee tax na kontaan naa fi mu nekk nii euh, si 300 yi damay dal di jël léegi mayeetuma fukki junni waaye nag 250 eh. 000 laay ñëw maye. du ma woo ma maye dama bëgg yéen. parce li ngeen def ci soirée ñu ngi Bessél yaram bi tàng na. waaw yaram bi tàng na 250000 lay maye. aywa xaaral parce que dégg naa Youssou Ndour li mu def. ci soirée bi dajji beneen paquet bi nga dajji woon war na fee jeex. dajji beneen paquet bi nga dajji woon war na fee jeex. dajji beneen paquet bi nga dajji woon war na fee jeex. dajji beneen paquet. dajji beneen. eh yow de. gerte gerte sama sa la woon ak fii bokkul. fii Sénégal la foofu loolu la. Ah. bàyyi sa yooyu ah? fa mu wax moom dëgg fa yàlla moom. la kot la kot la comprendre naa comprendre te. ah gonga kon nag euh, comme ni ma ko waxee dama bëgg ci. sama naataango yi te xam nga entre ñun dañuy defarante teraanga di mayante mm. ba tax na rek léegi laa leen di may nee leen dañu ànd ak bijouterie la solution ñu maye ay parure yoo xam ne ni ku ko gis macha allah te lu muy jar cher lool daal di dem ci Adja Ombelico moom tamit mu jox ñu ay chambre à jox ñu li nga xamante ne tamit moom mooy yére loo leen bëgg rek boo leen fa demee tamit dañ leen koy may waaye duñ fa yem rek dañuy daal di ànd appel baa ngi dëbb mu ngi cak cak cak cak cak cak cak et eh, appel baa ngi dëbb di téléphone bi bas besel bas besel bas besel bas besel bas besel bas besel bas kon nag gaaw leen gaaw comme ni ma leen ko waxee rek ànd ceeg waa Kabres xam ngeen fi mu nekk nii moom iPhone 15 kuñ ko jox ci jamono ji iPhone 15 mm-hmm. dañ koy maye mm-hmm. xam nga loolu neex na ah, mm-hmm. ah dëgg dëgg nag gaaw leen gaaw numéro yi woote leen si nee naa leen ñu may leen dañuy am ak yéen teraanga saa ne parce que yéen ñu ko ji ba tax ne ñun tamit pour ñu delloo leen jukkal rek dañ leen di jox at bu jot daal di leen di may ay cadeau donc da ngeen ñuy woo si numéro yi nga xamante ne maa ngi koy wax ci 88 oustaz Assane Seck maa ngi direct nga may woo xanaa loolu nga bëgg ma wax la boog bàyyi ma oustaz Assane Seck. borom événement bu rëy bi waaw bul wootee si sama téléphone. wooteel fee te yéen

léegi léegi ku ma woo rek moom laa lay jox comme ni ma leen ko waxee tamit am na ku nekk si ligne bi rek allo. <coughs> allo oui. salaamaaleykum. loolu de maa ko moom mën nga koy jox. Ah? loolu de man mën nga koy jox. <laughs> yow yaako moom. waaw ah, man mi dugg si loolu nga wax. wala waxul loolu. waaw waaw yaa ko moom de damay may rek ah, man. comme may ma. noo def foo ñuy woowee. sant sant yàlla bu baax ñu ngi ñu ngi woote ba Zac Mbao. Zac Mbao. Hmm. ana waa Zac a ngi ci jàmm. mbaa yéen ngi si jàmm noo leen yeewoo ndekki bi tey lan la toola wala lu ñu xadi mbaay indil fii mis wi nga nekkee. non ndekkee. yooyu noonu moom laa bëgg ndekkee ah? yi ngay maye. yi may maye ci yooyu nga bëgg a ndekkee. ah yow maa ciy dama lay may léegi nga dugg ci dibiteri bi mbaa nga dugg ci kii yooyu yu mag yooyu rek bëgguma tudd tur bi nga dugg fa lu la neex. ah kon baax na kon. ah bi fàttali tur bi ak sant bi. Ibrahima. Ibrahima naka. Sane. Sane. Sane ah. yow de fokk. Eh, aw joolaa. waaye soosu bu déglu dara. itay mandinkool la itay man mandinkool la. dara déggu ko. ah itay lum Sane lool tey. kon kon il awa awa awa awa kii dañ pini de moom nee na déggul soose. bari eh, mbaari kee su ki nee na déggu ko si oh, aw kortanante imam fem moye bilaay camara la tegu mo anatara ah, ye fem moye no ɗum dombi mbe sola am 250 euh, ba baɗi ɓawo iman fem moye ɓesel ngamira keme keme euh, keme wooro hani euh, keme lulu keme lulu yo ok d' kon nag eh, <laughs> nu ñu def comme te yow daal Awa Gueye moo la làkk soose yi neex yi ma làkk la soose nag nanguwoo koo dégg <laughs> ah? dëgg dëgg nag xam nga nan def boo ci waxoon benn moo bu ndaw rek ma may la deux cent cinquante mille benn ah boo làkkoon benn moowu soose rek ah. su ma la nee su ma la nee mbaa di mandinkoor la a naal ka mooy la mbaal kontoon na ma wax la xeera doron loo may tontu wala bu ma la waxee su gonoon koolee maa ngi ah? maa ngi ci jàmm kon nag euh, damay bàyyi Eva Eva jëlal ma ko. Mm-hmm. Ah? kon may naa la fukki junni dégg nga. Ah, voilà donc. jaajëf bul bul bul bul loolu may naa la fukki fukki junni ndaxte nag boo tontu woon Awa si li mu wax rek wala nga faram fàcceel ma ko rek ma mayoon la 250 mille woote leen gaaw comme ni ma ko waxee dama leen di fàttali saa su ne rek numéro téléphone yi euh, si li nga xamante ne moom mooy Teranga Sénégal euh, Télé Futur Média rajo bi donc ñu koy maye di ko may suñuy téléspectateur waaye suñuy auditeur euh, noonu la ñuy dem rek wax leen numéro yi 88 la 628

ci numéro téléphone yooyu ngeen def rek euh, seen mbokk moomu gis ngeen ko woote na ñu daal di koy jox li nga xamante ne moom mooy fukki junni waaye man changé naa ko 250000 lay maye jooni jooni ma jëkkati may leen ko ñun ñi Mado mun na yëkkati sax lu ëpp loolu maye bu kontaanee rek xam naa ça dépend ci kii woote nu muy waxtaanee moom Xadi Mbaye moom xam ngeen moom dafa yéwén lool. xam naa day boole mille ak bool bi jox leen ko. bool bi ah? bool bi du dem. baax man daal duma wax man daal mi akkarate ko no mi yara ñeekam ɗam waaw loolu moom loolu moom laa bi. ñeex ba waaw ñeex bi est-ce ah. ba fa la rëktamal ba yëpp. di ah yow <laughs> ah? ko yow tamit rek ñaa yow looy jël. Ah? yow moom xam naa ne salade bi ngay may ak 500000 yow. Euh, damay damay sama rakk damay bàyyi ngeen kii rek. ngeen tànn lu ngeen may jox rek bu dee salade bi laak yooyu noonu yow ma jël ko am lu ma defee fit nga nuróowoo ak ñun sama genre gi ñun xam nga pata pouf lañu yo xa yow yow yow yow ci crudité yi ngay lekk voilà li man j'adore euh, les crudités ak kii bi mu teg na la ci kaw euh, marinade marinade bi mm-hmm. les olives et tout ça et puis ah, après si mm-hmm. ma jël ci euh, un peu de viande effectivement voilà sinon si c'est pas la la nuit. si c'est pas la nuit. waaw. maanaam at night guddi. guddi waaw waaw yow secret bi. en fait la nuit je mange pas lourd en fait. effectivement eh je mange léger. parce que ci ngay jëlee poids sax voilà je mange léger kon da ko fi bàyyi moom. je suis comme Mado non c'est-à-dire dinaa jël pigeon bi. exactement voilà pigeon parce que ça dafa am fer. waaw tu vois j'adore les pigeons. Mhm. d'accord ñu naan mmh. mmh. mmh. xam nga man nag moom. may ma may waaw may ma. oui yow booy jël. may ma ma wax la <laughs> man may ma ma wax la man man la jël. ban ngay jël. pël. man xam ngeen naar ak pël laa yàq wax naar ak pël. xam ne ndawal bool bii may boroom. Eh, waay. nag bu ma ci booleeg sama benn rek ngumba rek teg ko à côté. luy ngumba ngumba jël jël fii si ndawal li ni gëm gëm pëli di ko ngumba daal di koy jëlaat ci baar ko fii benn boole boole ko ci yaa ngi tooñ de yaa man kon te man nag naar ak pël laa man xanaa ndawal maa ko moom ah. man moom man wutuma taay fii fekk nga fi fekk nga fi te doo ci may sama goro Kaolack fii tuuti rek am peu euh, maman Léna waaw waaw ma yekkal ko ci toq rek moom mun naa ko benn kii bi ñu seeñu ba pare eh, sa goro la de waaw bay ba tey man na kay moo la en matière de ndawal waaw ma ci yaay ma ci papa aw ma ci goro ma doon ma si jëkkër ma doon kii yàlla xaw ma ko ah, xam nga nit ku nekk nit ku nekk da ngay taala soow man de man lii di soow lii di ndawal xam nga aw ma ci mbokk beseel hmm? xam nga nag xam nga téléspectateur yi suñu ay famille lañu vraiment suñu ay mbokk lañu vraiment dëgg la est-ce nga yow fi ngay waxee man waxee mu foofu <laughs> beseel ma jox la bi baax tellement kan Xadi Mbaay téléspectateur xam nga tey la jeudi yow xam nga ne ma eh? yàqal ma ne téléspectateur yi. suñu ay mbokk lañu suñu ay nawle lañu. bul topp est-ce que comprendre nga. voilà léegi nag euh, ndawal bii. Mm. dañ ciy lekk ñun moitié. Mm. waaw mm-hmm. moitié bi. waaw ñu may leen ko. kan lañ koy may kan lañ koy may kan. téléspectateur yi. kan ci ñoom téléspectateur yi kan si ñoom. waaw ñoom ñëpp. ñiy woote ñiy woote. ni nga def noonu la. bàyyi naa ko parce que bi Youssou woyee ba xolam sedd dafa taxaw. waaw mbay mayal ñi tamit way. dëgg la waaye ñu nit bu ñu lekkee. nañu mayaale gaa technicien yi. yow xaaj bi nga leen naroon jox. man na xaajal xaaj bi jox ñi xaaj bi. ñun ñu jox leen xaaj bi. day jeex. waaye xaaj bi ñii tam. wuyu leen ma man mayewuma dara xewuma. leblewoo leblewuma. leblewoo mayewuma téléspectateur. luyewoo man en matière de lekk aw ma mbokk. way way bi xale yi nag raw beesel lakk na daay. beesel lakk na daay beesel beesel lakk ah mayewuma. saraxewu ma. yow kii bàyyi naa ko. ndawal li daal. dama ko bàyyi boo paree rek boo paree rek tagal ma ko fii. xaaral sax ma làkk la olof bi may jaxasee pël ak yenn kii. am na ku lay woo téléphone nii léegi nag boo paree dégg nga. bu may woo kooku na xaar. waa dama na na na na na na yéen a may dërloo sax. moom ma gisee ndawal sax damay dër. man de Basel. ah kii nga xamee ba tey. maa ngi lay soog a gis nga. kontaanee nii. waaw suñu fekk bëgg lekk yow xanaa seetaanoo bi. yow man dama bëgg lekk. lekk si jëmm eh. boppam. mais da nga am chance nag par contre tu gardes bien. ah ma doo xanaa xam nga yow. lii nekk sama fii. ah, ah moom laa génne. <laughs> nurul ko man pataaw puuf de lekk bëgg ko tubaab fakkaat la kon yow macha allah man waroon mel ni yow. yow sa pataaw puuf de moom ah macha allah. neex oh nañu there. ci suuf man daal xam naa ne daal. man daal damaa bëgg lekk. waaw léegi nag euh, xam ngeen tamit nag le premier def nañ ko ba pare grand bal. Mm-hmm. léegi mu desaat le 6. effectivement waaw te nag le premier la ñu def nii. Mm-hmm. le 6 moom xanaa moom. lan moo fan na na na na na na moom man bu ma sañoon rek besel mm. ma ñaan la ko comme ñun ñëpp ngi taxaw mm. xam nga tàmm nañu di ko def slogan di ko lancé mm-hmm. def une voix à la rajo mm-hmm. tey télé bi dama bëgg rek ñu soppali rajo mm-hmm. def ko ko te rajo kat baa ngi ni sama waaj le 6 tey boo waroon tiim sa waaj ñu ko yàgg defee ñaata mbaax yuusumaa jigéen sunu waaj nga war a taxaw waaw woo nit ñi. Mhm. sénégalais yi nee leen resis ca bés bu rag sama waa ji loo nar a defete lancé na ko le premier bi nga xamante ni gars yi ko doon xaar mu ñëw daal di koy def doom ñu ne deetawaay démb ba ni may wax ak yéen amatul billet. RFM. donc tey jii fii nga xamante ni mooy TFM également je pense que nit ñaa ngi fii ñëw ñëpp di ñëw ndax la ñu seenoon moom la ñu mais nag il n'est pas n'importe qui mhm. Youssou Ndour da nit boo xamante ne ni tey ci Sénégal ak ci àdduna lépp lu mu woote day fees il est humble am na talent représenté na Sénégal bu ko neexoon tey ji mu daal di toog ci bitim réew ni ñëpp di def. Mhm. waaye dafa ñëw ci réew fii la ko woyee fii la ko réussiré fii la ko amee waaye itam fii la ko bokk ak waa Sénégal. mesdames et messieurs ñëwal ci loolu. <laughs> non loolu dama ko namm ci yow. <laughs> mesdames et messieurs non ñaatam bi. mesdames et messieurs. oui rendez-vous ce 6 à l'esplanade du Grand Théâtre avec Youssou Ndour les super étoiles de Dakar à ne pas manquer. kon nag képp koo xamante ni bëgg nga billet RFM TFM. Cosaan Cosaan mm-hmm. ak fi nga xamante ni mooy suñu point de vente yi ñëw Vivita. Mm-hmm. am ànd ak ñoom ci showroom Anduré Bay Electronic Cop. mais également fàttewuñu rapido li ci gën a neex mooy teew ticket teew ticket nag moom da ngay daal di ñëw rek daal di jël sa code QR daal di koy scanner ci photo bi mu daal di lay jox li nga xamante ne mooy sa billet nga daal di dugg ci Youssou Ndour le 6 janvier incha allah. Euh, meilleure présentatrice rajo. dégg macha allah macha allah. tàccu leen loolu. kon nag euh, jërëjëf ñaatam euh, comme ni mu ko waxee rek euh, le 6 xam ngeen tamit nag foofu nga xamante ne moom mooy grand théâtre oh. génn leen ngeen daal di parce que fi mu nekk nii moom bu ma kenn woo aw ma billet démb am na ñu ma ah, commencé di woo man munu ma jëndal billet kenn munu ma may kenn. benn billet ñu ñu billet. voilà may ñu ñu billet il faut que loolu ngeen xam ko tamit. bu ñuy dugg aussi suñu carte duggee la la ñuy duggee loolu ñu ne la demoo ma sa <laughs> donc loolu aussi lu lu am solo la waaye ci biir loolu ñaatam dafa wax wax bu am solo boo xam ne ni euh, nee nañu nit ki tamit am na loo xam ne da nga ko koy seedeel mhm. Youssou Ndour li tax xam naa nit ñi bëgg ko mooy wàcce gi mu wàcce boppam mhm. surtout wàcce boppam ba yem ak ñëpp ñëpp te Youssou Ndour bu la xasee xam benn yoon mhm. bu toogoon 10 ans boo ko rombaatee dafay jaaraat sa tur daal di lay nuyu donc mu nekk nit koo xam ne nit ku oyof tey mënoon na mel ni mu mel nii ba pare diisal boppam mhm. kiiwal boppam mais ñun ñii di liggéeyam de xoolal commentaire yi xoolal lañ ko voilà <laughs> si commentaire bi dañ koy ñaanal gudd fan gudd fan mérite mhm. monument monument def ko defal ko hommage waaye wax ni uh-huh. corniche bi rek la ñu war a jël daal di ko koy tuddee ba pare def ko citoyen d'honneur de la ville de Dakar. mais da ko mérité dox la caabi Dakar ngay tëj di tëji nu mu la neexee yow ville bu nekk ci réew mi am nga fa caabi lu am solo la parce que tamit Euh, parce que tamit bu ñuy wax ne aduna tey nit ñi saasu su ne rek dañuy naan lan la ma sama dëkk ah, defaral lan la ma sama dëkk defaral waaye moom ah, kenn du ko wax lool mm-hmm. moom dafay dafa def defaral dëkkam mm-hmm. defaraatal dëkkam kon je mm-hmm. pense que message bi nga xamante ne rek commentaire bi def nañ ko da ko daal di mérité et li ñu wax dëgg la parce que tamit nit ki ba muy dund lañu ko war a delloo njukkal la rendre ko hommage daal di koy tuddee nag li nga xamante ne comme ni ñu waxee corniche bi yaakaar naa ne mérité na ndaxte yàgg na di indi embouteillage ci corniche boobu. effectivement donc ce tweet là maa ko seetaan le lendemain ci laa ko gisee ci li nga xamante moom moo di internet bi. Ah. ci li ñuy naan rek mooy contentement bi sénégalais yi am. donc il faut qu'il sache que moom personnellement je sais que moom li ko gën a soxal mooy bëggal sénégalais. mais il faut qu'il sache ma tijjee euh, Facebook ko man dama ko screen ma ne lii c'est à montrer parce li nekk nii moom nii ko xalaat ko xam naa ni bu ñu wëree ci sénégalais yi nekk. 14 millions sénégalais yi moo nekk seen xol mu mat bay bëgg bëgg a dee ne ko yàlla dina indi keneen waaye sant yàlla ñun ba ñu suñu borom joxee ku mel ni moom ndax tubaar fakkaat la hmm. c'est un patrimoine hmm. dañ ko war a ñaanal gudd fan ak wér macha allah yal na ko bu kan mooy béggal xale yi loolu la mbëggey fay wax baa baajay démb mi ci néegu yoof mais nag Euh, moom bu màggatee wala mu bàyyi way mhm. mais kan mooy déggal mag ñi euh, ba pare beneen bi xam nga mooy lan mhm. nañ ko ñaanal yàlla lafal ko cat waxuma la caabi ndakaaru mhm. waaye pourquoi pas caabi partout dans le monde euh, Bessél man xam nga dama jëloon micro di dugg ci biir nit ñi ànd ak IGFM pour cent mooy ninety-nine percent of mm-hmm. nit yi fa nekkoon mm-hmm. ñaar rek lañ doon ñaanal Youssou mm-hmm. waxul kenn waxul ne ah dama kontaan parce que nii non dañu ne yal na Youssou am wér yal na Youssou am wér na gudd fan li muy def ni yal na continuer di ko def you know uh, après benn instant man uh, sama yaram dafa dafa gën a tàng non dafa gën a tàng ma gën a am fierté que ki nga xamante ne maa ngi ñëw di ko liggéeyal ak képp ku fi taxaw yaa ngi taxaw fi ak positivité da ngay gis uh, artiste di tëgg am ñenn ñu dem ah kii dafa soof kii dafa nii kii dafa naan non ba dis wan muy mag di ndaw ñëpp ñëpp doon fecc mhm. xam nga moom tamit euh, mu joxe ak mhm. mhm. ak liggéey bi bese da nga gis koo xamante ne dina jël xaalisam tëgg événement wam def ci lim ci war a def yëpp artiste bi war a ñëw teel a yéeg ñu teel a yéeg nit ñi dañuy dem ba dañuy sonn mais Youssou dafay yéeg ba yow mi nga xamante ne yaa boo jëndee sa billet daal di ko consommer nu mu la neexee sa da nga ciy daal di kontaan te parce que tamit loolu c'est pas parce moo tax ñuy def commentaire yi lendemain Mm. soirée bi mm-hmm. télé boo ubbi rajo boo ubbi boo duggee ci internet bi comme ni ko Mado waxee mm-hmm. wax ji benn la mm-hmm. la preuve daf dañuy sax tere ñuy def ay kiyam commentaire mais nag on est obligé de le faire parce que on se met à la place euh, nga xamante ne ñu ngi seetaan ñi seen xol di bésal daal li ma la mën a wax mooy xolu sénégalais yaa ngi neex kon moo tax nag ni muy seddaree xolu sénégalais yi di bégal doomu aadama yi doomu aadama di la déglu di kontaan moo tax yàlla da koy daal di may jàmm ndaxte jàmm jàmm jooju lay def ci biir xol yi donc jàmm jooju loolu la la yàlla di delloo li ñu naan nit la ngay seme rek loolu ngay récolter li mu nekk di seme ci xolu doomu aadama yi nduura waali mbergaan loolu nga nekk di récolte rek ah macha allah. kon nag point de vente yi aussi. balaa maa ñëw ci lii ñëwal ma ci point de vente ticket yi. point de vente fan la. point de ko léegi. Mhm. boo demee RFM di nga ko am waaye boo demee cosaan li ma ci mën a wax mooy gaaw leen dem jëndi ko parce que sénégalais dafa tàmm. Mhm. dernière minute. waaw euh, dañ nañ bàyyi ba ci bés ba téléphone yi di toj. fan laa mën a jëlee biir voilà yomb na gaaw na réserver leen ci 76 673 20 20 wala nga dem ci 621 77 41. 41 41 wala 38 muy numéro TFM 869 91 83 RFM TFM Cosaan Viviti Vivita mhm. euh, suñu euh, ñi nga xamante ne ay partenaires lañu and ci également ak le Grand Café showroom bi nga xamante ni mooy André Baye électronique corp boo demee point E di nga ko am besel rapido gaaw na da ngay jënd mu indil la ko léegi waaye teew ticket moo ci gënati ndax teew ticket da ngay ñëw jënd li nga xamante da ngay ñëw ñu jox la nga daal di jël li nga xamante ne moom nga jël daal di koy scan euh, ci sa code QR fr voilà point com voilà wala nga dem ci magasin Supeco bi wala Carrefour bi yoon dañ ko élargir ba nga xamante ne pour nit ñi waaw foo tourné nga mën a am nga daal di eh, juste pour rappeler ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko fekk si tamit pour te dire rek ni ko nit yi bàyyi xel rawatina nag wàllu éducation am na ñeneen ñoo xamante ne yokku nañu ñi ñu leen di tuddee waa ah, solu solu étude solu étude nag réussite scolaire pour xale yi nga xamante ne dañuy jàng gis nañ seen bopp ci yuusu ba tax na ci événement allah kon nag daw leen gaaw point de vente yi ñi nga xamante jox nañ leen ko ngeen dem jëndi fa seen ticket ñun amuñu ticket suñu carte presse la duggee pour muy clair ma ñun ñi ñëpp nag de A à Z képp kuy liggéey Futurs Médias mënu la may billet mënu la wutal billet mënu la boole ku lay jaay billet ñëpp waaw mënoo jëndal aussi ñëpp parce que moo ngi noonu donc daw leen gaaw te aussi bu leen xaar dernier moment ngeen di woo nit ñi boole ma diw kan laa a wax nañ leen fi mu am dañu war a honestly euh, ku nekk di nga jëndal sa nit ki nga war a mm-hmm. jëndal mm-hmm. mais Youssou dafay business di ko delloowaat back si country bi in mm-hmm. Sénégal so je pense que ne képp koo xamante ni nit ki mi ngi liggéey di def dara jëlal sa un franc ko ci euh, du la wàññi daf lay yokk instead donc may may bi ban ne xool sax da koo jar war ngaa rusa nangu you yeah so euh, man man personally waa Gambia waa everywhere man comme ni ko Bessel waxee ku ma may biir fekk na man maa jël sama propre xaalis. jël te yoruma. jàppale leen euh, jërëjëf Awa Gaye kontaan ci moom dañu waxtaan bi neex neex neex neex. jaamaan maa ngi ñëw balaa jaamaan ndaxte nag tamit euh, ku la defaral teranga te ñun Sénégal dañu xam teranga dañ leen di delloo teranga boobu delloo leen jukkal boobu ba tax na rek nee naa leen 250 000 moom laay maye woo leen ñu.

676 06 06 88 628 76 76 628 20 20 donc woo leen ñu si numéro yooyu boo leen ñu woowee ñu may leen li nga xamante ne moom mooy teranga Sénégal yéen ñu jox teranga ndaxte li pëli di wax teddungal dasetake koko rondete sa rondima ha pariyanab kono onon téléspectateur ɓe ɓe noddeminen e, e ɗiɗo numéro ji so noddimin hen ɓe mbawa mon rokkude oɗo kalis ko onon jeeyi ɗum men jeeyan ɗum so noddi kam joni joni maɗa wawi mon okkude ha eh, eh, guluje capanɗe jeegom ha guluje capanɗe joyyi ɗum ɗon ko onon joyi ɗum mbeɗa faddi mon noddon kam joni joni joni joni eh, kono nak dañi ɗem setan benn équilibré de temps que may jëlaat beneen téléspectateur am daal di koy jox si yi Uh, mooy um, how to call it uh, Samsung fii nii uh, mhm. ci Sénégal kon boo ko jiili CSB ci li nga xamante ne mooy côté electronics um, Kabirex la bi pa nag suñu partenaire Kabirex ñoom la ñuy daal di àndal ñoom ñoo ñoom ñoo ñuy jox li nga xamante ne rek mooy iPhone bi uh-huh. ñaatam yow sànq wax nga lu am solo tamit luy jekkal jigéen boo solo ba pare lekk ba suur jigéen soo ko soo ko soo ko terelee rek mm. or mm. terele nga ko lépp waaye loolu nag damay bàyyi mbaaya mu mm-hmm. daal di ma ciy ñëwal tuuti mbaaya gisoo mu takk ci benn mbaaya <laughs> mbaaya or bi bijouterie la solution nga dem ñu may la parure en or bésal dama paasaale plaquette bi comme balaa may juum ah. bu réer yi doon doy yu daaw yi doy mm-hmm. macha allah Euh, xam nga aji caam. Mhm. Mm, fexe na moom it ba marqué empreinte am. ci fii ñu toll te nag ñi nga xamante ne ñi ngi jël gaal yi rek laay wax. Mhm. mbëkk mi mhm. nañu xam ne fii teraangaa ngi fii. macha allah juddoo ci dëkk bi tekkee ci dëkk bi. dëgg sànq dama ko doon wax ci Youssou Ndour. macha allah la simplicité vaut de l'or. xoolal li ko yàlla may macha allah. baat bu neex bi ba bu woyee ku meroon sax dangay ngay féex mu boole kook simplicité loolu la aji caam def boole kook nag jox ñu ay piis yu doy waar kon yàlla na yàlla guddal fanam eh, woote leen ñu may leen ci oor yi ndax ngalam ku ko la jéegi bëgg ba pare da am taw ngalam hmm. jaajëf di bëgg information bi ma leen di jox. le slogan de l' année. 2024. ndax fàtte c' est boo leen seetloo boo seetloo chaque premier janvier ci nañu am slogan bu bees te slogan bu bees bi rek mm-hmm. bi Youssou génnee mooy taw féex. te lii yëpp ku ko am. taw féex la taw féex la taw taw taw taw féex la am na solo comme ni ñu ko waxee rek euh, am na solo bu baax a baax waa Kabi rek si ñoom ñoo maye téléphone yi maye gazinière bi maye tamit lépp loo xam ne rek jigéen da koy daal di soxla kon nag euh, si biir këram euh, kon waa Kabi rek si ñoom ñu ngi leen di delloo njukkal mun ngeen fa dem sax ñu jaay leen seen numéro téléphone mun ngeen ko jël 77 la 800 00 00 30 boo leen woowee boo leen fa demee rek lépp loo leen soxla ci électronique rek di ko fa fekk waaye bijouterie la solution mhm. borom or yu baax yi kookoy mhm. madame Niaw mhm. chéri Ibrahima Niaw di xolu Ibrahima Niaw euh, ñoom tamit nag ñu ngi jaay ay parure yoo xam ne yu jéggi dayo yoo xam ne pièce pièce unique lay doon ñoom tamit boo leen demee foofu ca Sacré-Cœur rek di ngeen leen fa fekk mu ngeen leen woo ci 77 554 58 62 boo leen woowee ñoom tamit dinañ leen jox li nga xamante ne rek moom mooy ay parure yu rafet a rafet waaye nag li ca gën a neex nee naa leen sama yaram dafa tàng oh, donc woo leen ñu ñu daal di leen may euh, si li nga xamante ne rek moom mooy xéewali <coughs> waaw ki euh, nga xamante ne nag xam nga tamit nag jigéen bu nekk bëgg nga am chambre à bu rafet coiffeuse ba armoire ba hmm. lal ba vie yaa ngi koy dégg mi ngi ci waaj a takk ñetteel mu jàpp ah, day takk ñetteel maa njëkke ah, bi yow ah. chambre à coucher chambre à dem leen si Adja ombeliko boo leen fa demoon voilà moom boo leen fa demee rek dina leen jox ci li nga xamante ne mooy chambre à coucher moom tamit suñu partenaires yi la bokk dinañu mhm. joxe chambre à coucher bu jéggi dayo mhm. boo xam ne nii ku ko gis rek ah ñu amul woon benn dinañ dem wut ñaar ñu amul woon jëkkër dinañ fexe ba ñu takk leen. ndax ñu jënd ñaareel ci télé bi comme nanguwuñ leen may ci biti ñoom dinañ takkantewaat fii ci télé bi <laughs> ah, euh, moom xam na. ah léegi nag kon dama leen di fàttali rek numéro ngeen daal di woote si 88 628 65 65. 88 628 22 22 88 675 05 05 88 676 07 07 88 676 03 03 88 676 06 06 88 628 76 76 88 628 20 20 numéro yooyu mun ngeen ñu cee jot boo leen ñu jotee ñu may leen li nga xamante ne rek moom mooy seen cadeau euh, si fin d'année bi yéen a ko moom yéen askan wi dañ leen ciy delloo njukkal woo leen ñu ci ci biir émission yi nee naa leen. Euh, sama yaram tàng na ñaatam nee na ma sax nee nga ma naa ko yokkaat. waaw yokkal yokkal yokkal tuuti yokkal tuuti ndax gars yi gën a parce que fi mu ne ci fête la ñu jógee comme ni ko Mado waxee. waaw yi bënn na. Mm. gars yi dépensé nañ xale yi jigéen def nañ ba def lu leen lu ñu leen warul lu ñu warul woon a def. Mm. li sañse gis nga keroog soirée Youssou Ndour bi li xale yi sañse euh, c'est-à-dire euh, euh, couleur bi ma gën noir argenté. waaw dafa. toj soirée bi soirée bi franchement. Euh, Mado fum mu gën a sàkkee fu mu gën a ñuulee. Ah, elle a fait man dama génn dem dem dem doore. waaw mais mais mais mais def caramel. waaw mais après tamit après tamit changé waat nga. ah defaat blanc Youssou laa doon jàppale sama papa waaw def la paix. Euh, kon boog euh, gis naa am euh, Ramba la première bii ni gis naa couleur noire. Mhm. jël kii bi xaaral ko. doole bi ampleur mhm. bi mhm. ak argenté aussi. gis ah, naa ko affaire yi tàkk et ah. kon daal besal yokkal ndax gars soxla nañu xaalis. gaaw leen gaaw. ba pare xam ngeen li ci gën a neex leen di may ngeen ñëw jël si xaalis bi jëndaale ci billet. Oh. xam nga loolu neex na. le ñëw na ba pare waaw tey la tey la tey la 4. suba la 5 ginnaaw suba la 6. dama lay may xaalis soo ñëwee buñ la ko joxee nga jënd say billet. daal di jël li ci def def argent de poste. daal di jël kenn du nag damay buuxante parce que numéro yi bëri nañ te booti woote jot. waaw ah. fu ñu ñaanalee Youssou Ndour. Mhm. war nañu ñaanal Mbaye gay Faye mi nga xam ne. moo koy accompagner. Mhm. mais war nañu ñaanal ñu nekk ci ginnaawam. Mhm. rawatina Ndiaga Ndour ak Bouba Ndour. ndax nag liñ naan dëbbalante. mooy tax ab dog mook dëbbalante. moo tax ab dog mook. am na benn image boo xamante ne mbaaya mhm. dogguma la mhm. mooy bi nga xamante ne ma jigéen mhm. ndeysaan ñoom Omar Gueye ñi ngi koy xàllil boobu image bi xam naa naa ko yónnee fii Diouf gis boobu Buuba Nduur ngi taxaw ca kaw doon waxtaan ak ay xaritam noonu la mbokk ndey koy jur mais bi nga gisee bi ñu xàllalee may ma rek ma doo tegal foofu sa baaram la ngay wax ñor na ma lool te neex ma damay daal di fàttali rek numéro téléphone yi pour ngeen mën a am si li nga xamante ne rek moom mooy li ñuy maye euh, numéro bi 88 la 628 65

ça va bien merci. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm baax. foo ñuy woowee. Euh, tuuba tuuba waaw. ana waa Touba. ñu ngi lay ziar bu baax a baax tur bi naka la. waa tur bi baaxee ñu tur bi. allo. allo waaw ma ne tur bi la bëggoon nga baaxee ñu ko. déggu sa tur sa tur. tur bi Thierno Fall Thierno. Thierno Fall. waaw ah. da faale ni xam naa sa plat bi la ah. seen rek de. Ah? <laughs> waaw waaw. nee na waaw plat bi la seen yow léegi da nga bëgg ma ma jox la si plat bi wala si 250 mille yi may maye ma boole waale ci togg xadi mbaay bi. ci biir noonu 250 mille laa ah? laa bëgg. ah waaw. faa la nag xam naa ne xam naa plate bi du ko doy moo tax ah, si 250000 bi lay. bëgg loolu bëgg moom nee na am ñoo ñu accompagner ci émission bi sëñ bi allo. waaw allo oui. man la Mado dama lay laaj rek ñun émission bi ñan ñooñu ci accompagner ñan ñoo ñuy dooleel. ñeneen ñi leen di dooleel. waaw. ma ma. maanaam yan sponsor lañ ci ñan nañ ci àndal ba nga ah? xamante ma ne yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay comme fi mu ne ni sa xel dafa nekk ci juróom fukki junni yi muy deux cent cinquante mille francs léegi wax ñu. waaye maye balaa neex tamit ki ngay may mu xam li nga koy may naka la tëddee. waaw ñaaw. du noonu. léegi nag teraanga yi nga xamante ne dañ leen di ko may bés bu soob. ñan nañu ci àndal ba ñoom tamit ñu dooleel ñu ba ñu mën leen jox teraanga. mooy seen partenaire yan xeetu partenaire nañu am ci biir ci maye teraanga Sénégal bi. partenaire yi. Euh, Adja Anta Beliko. Adja Anta Beliko Adja moom ci lan lay yëngu ak lu muy maye. Adja Thiam. Adja Thiam moom si lan lay yëngu ma doo nee na. Euh, ministère de la solution. Hmm. ministère de la solution. ministère de la solution keneen ki mu di kan. Euh, ak Kabirek. Kabirek Kabirek. Kabirek. Hmm. ñoom ci lan la ñuy yëngu. Ka ñan si. waa Kabirek. waa kabi rek. waaw. waaw ñoom ñoom moom xaw ma fi ñu ne ah. nee na ñooñu xamul ci lan lañ. xamul juróom a neex a juróom-ñeent a neex a jàngal fukk. dëgg waa léegi euh, Télé Futurs Médias. ñaata million lañu teg ren ci taabul gi. million 30 ah? millions 30 30 millions. 30 waaw wax nga dëgg nag 30 millions la ñu teg nag nar koo maye nag kon noonu lay def rek dama lay bàyyeek Eva mu daal di lay euh, jël ci suuf nag ñu jox la li nga xamante ne rek moom mooy may euh, waa Kabirex ci kabi non si Kabirex ci bi nee comme yaa ngi doon mayee fukk xanaa sax Eva war na ko mën a may sax ñu compal ko defal ko 75 au lieu de fukk sax ah. waaye nag wax ah. dëgg fa yàlla bu trouvé woon yëpp ah. dama ragaloon ne yow boo ko joxoon 250 ma teg ci 50 loolu compte nag xam nga waa am doole yu am solo te ci Kabirex bi la xaw a daanoo tuuti Ah, kon bul quitté Eva jël la ñu daal di lay jox fukki junni waaw mbaaye yaa ngi doon wax lu am solo ñëwal nga ni ma ne ko ku xam juróom-ñeent neex a jàngal fukk hmm. bu xamoon yëpp ñu daal di koy jox trois cent mille yi léegi ndax fu mu nekk nii moom tey da nga yëngu moom Madou yow nee nga nee nga nee nga ban image moo la marqué par rapport ak Super Étoile sànq yaa ngi ko doon wax faf may rappelé parce que dafa amoon ku nekkoon ci ligne bee taxoon. effectivement li ñu naan euh, mbokk. doole dara ndeye koy jur waaw ndeye koy jur macha gis la boo àndul ak say mbokk. gis ku la gën foofu ànd ak i mbokkam. dëgg la te bu ñuy waxtaan li Mama Khady fay wax ci TikTok bi. te bu ñuy waxtaan ne la may ñu. ndax bëgg suukër. dañuy waxtaan ci suñu biir waaw ah. bëgg suukër. bu deewee ci saaku xorom. war na boppam wari mbokka dëgg la eh kooku moom gëm naa ne vieux bu xooloon tuuti rek am na benn vidéo boo xamante ne dama ko ko yónnee na ko xoolaale. Mhm. donc image boobu rek laa doon wax nee naa bés bi nga xamante ne bi Youssou mi ngi doon ñëw ñoom Omar Gueye di ko xàllal yoon bi muy waaj tàmbali macha allah mhm. da doon seen buuba ma nga taxawoon ci benn bërëb di wax ak ay nawleem ah, waaye bu mu ne jàkk ba gis ki nga xamante ne moom moo di Youssou ci oyofam ci léppam da nga gis dafa wàcc bàyyi mhm. di jàmbale ki nga xamante ne moom moo di magam ah, di ko xàll yoon bi ci ngay xamee ni foofu deret rek wuyu mhm. je pense que kii dina la ko tegal nga xool ça c'était émouvant mhm. cette image m'a beaucoup dafa dafa solo xam nga xam nga xam li lu may fàttali mhm. samay rakk ndeysaan euh, sama ay rakk sama ay doomu baay ak sama ay doomu ndey mais samay doomu baay euh, gis nga ci kenn Mina tu vois Mohamed samay rakk parce que lii dafa neex sa mag sa mag la mhm. euh, mag day jiitu rakk topp ci euh, lii moo te mag bu nekkoon xatax sax danga koy topp euh, kon lii man maa ngi taxaw xooluma woon yuusu nu muy duggee buuba laa doon xool parce que benn instant ñi ngi téye yuusu dafa stressé sa bi loolu dóoru boppam ni rendu ci compte kon boo ko li Xadim Mbaay wax am na mbokk yu neex a àndal soo amee mbokk bu neex a àndal da ànd ak moom kon te lii is dafa am ñoo xamante ne nii sax boo nekkee ci euh, devant les écrans nga xam ne tey ji da nga nekk star nekk koo xamante ne nit ñi dañ la xàmmee ràññee la leneen lu ñëw lu gaaw a dal ci sa kaw besel dafa yomb donc tey ji soo amee ay mbokk yu baax ñoom ñooy nekk barrière c'est-à-dire dara du yegsi ci yow ñoom ñoo lay toppatoo ci biir ñoo lay toppatoo ci biti xam nga li may wax dëgg la bu baax a baax ma ne ko ma ne ko jërëjëf njaatam li nga wax wax bu am solo la ndaxte nit bu siiwee rek euh, luy yomb di daanu ci moom dafay daal di yomb lool mm-hmm. Mm-hmm. waaye nag boo amee mbokk yoo xam ne dañoo daal di dëgër mm-hmm. daal di solide booloo doon benn waaye lépp nag tamit ci yarin wala waaw léegi léegi Aminata Bacham kan la jaaxal de eh, ma ne ko macha allah kon tax na rek mbokk bi rafet jikko ko dàq waaw dëgg la waaw loolu moom loolu moom loolu moom dëgg la waaye nag euh, comme ni ñu waxee rek nañu booloo doon benn nañu mhm. jàppante jàppante mhm. ah ñun Sénégal lu ñu xam mag lu mu tàng tàng. nu mu mënta mel ci àdduna. Mm, mm. moom mooy mag. wallaay la ciy topp mag lu mu wax waaw moo fay mm, dox. kon nag nañu nañu jël suñu suñu suñu suñu euh, suñu culture boobu. suñu yarin boobu. suñu aada boobu parce que dafa nekk aada boo xam ne aada bu baax la. waruñu koo bàyyi mu daal di tumuranke. moom way na ko euh, Bessél be way na euh, rakk topp mag mag respecté baay. loolu mooy waaw ndaxte ndaxte daal mbokk dafa neex. dafa neex de dafa neex torop <laughs> eh, ñi nga xamante ne nag mbokk gi seen kër dafa xaw a jaxasoo tuuti mm-hmm. Mm-hmm. yal na fa yàlla indiwaat jàmm ñu booloo waat nekkaat dem koy moo koy jaxase waaw parce que nit ñu bokk ndey ak mm-hmm. ba dafay des ba oh, tey bu ñu bokkee baay day ba tey da ngay gis lu ndaw loo ne bu ñu ko trouvé woon rek lu da ngay jar na ko solution lay doon parce que yow mi nga xamante ne yaa bokk ak sa sa rak ndey ak baay mais bul waru a xajal kenn diggante rawatina guddi yi ñu dëgg la am na ci jeeg yu bon yoo xamante ne ñoo tas kër yi dëgg la yal nañu wallaay waaw euh, ay nit bu ñu bokkee dañuy bokk lépp waaw dëgg la moo taxit nag mbokk la ñu wax ba ñun ni ñu booloo fii nekk ci kër gi doon mm. benn doon ay mbokk ba tax na rek moom tamit nag mu ñàkkoon waajuram te mu bokk si ñun Émilie ñu ngi koy donc ah, jaale voilà donc ñu koy jaale papam boobu yal na ko yàlla xare ajjana mm. yal na leen dëddoo ci jàmm suuf oyof ci kawam yàlla nag oyofal leen li nga xamante ne rek moom mooy méttit boobu ak mm. tiis boobu Émilie ñu ngi koy partagé ak yow euh, kon nag Anne voilà euh, si noon la ñuy demee teranga Sénégal maye naa nag ca la may dese nag ca xaalis xaaral ma xool. Mm, ah, fi nekk nii 300000 yi laa bëgg a maye te damaa bëgg kii dugg nag. bu waxee daal di trouver lépp nag question yi ñu koy posé. parce que Mado ngi fi. ma ma ay question yu baax la yor. bu yeboo ngeen waaj ma ma ma jox ko. kon si loolu rek laa leen di fàttali numéro yi ma daal di ñëw ci sama rakk ji moom it am na lu neex lu ñu indil ndaxte ku wax carotte nag carotte nu mu taaroo nu mu rafetee. Mm. nga koy lekk waaye am na ci leneen tamit loo xam ne nii xam naa tey est-ce que sax du loolu la laal parce que tey moom da nga nuroog carotte. allo carotte yi <laughs> allo carotte yi. ay look carotte yi. ah macha allah you look like. dama carotte tey waa tey da nga carotte da nga xaw a carotène waaw carotte bala sama maquillage moo carotène ca carotte bala orange orange base orange loolu moo ngi noonu gisoo da nga da moo tax il faut que nga ñëw ceeg téléspectateurs yi su ma fàttalee Teranga Sénégal ba pare eh, si numéro yi comme ni ma ko waxee rek ànd ceeg suñuy partenaire ñu jara àndal at bu jot nag ñoom tamit dañuy daal di accompagner eh, kon nañu dem si numéro téléphone yi 88 628 65 65 88 628 22 22 88 676 05 05

mën nga dem cosaan mun nga dem euh, TFM mun nga dem RFM mun nga dem euh, fi nga xamante ne tamit euh, moom mooy suñu point de vente yi nga xamante ne am nañ ko boo leen fa demee GFM aussi dañ fay daal li nga xamante ne moom mooy ticket yi daal di dem tamit Vita ñoom ñëpp boo leen fa demee wala ngeen daal di dem rek li nga xamante ne moom mooy ww loolu lan la noonu teew voilà teew point comme ngeen daal di scanner comme ni ko ñaatam waxee sànq. teew teew ticket. waaw teew ticket dafa nekk dafa nekk benn application boo xamante ne ni doy na waar. Mhm. boo fa demee daal euh, boo ci duggee di nga xam li nga xamante ne moom ngay am mooy sa code QR. Mhm. code QR bi boo ko jëlee ci photo bi rek nga koy jël scanner ko ci daal di am li nga xamante ne mooy sa billet ngir dem waaye tamit euh, ñi nga xamante ne ñooy waar rapido gaaw lool. Mhm. dañ la da ngay woote ci numéro bi 33 824 25 02 ñu daal di lay jaay sa ticket jox yónnee la. la ko léegi léegi rapido eh, ci ci tàng tàng bi showroom nag Andori ak Bay Electronic Corp ñu ngi ci point E. Mhm. ñëpp xam nañ leen soo fa demee jënd ak Grand Café ak Vivita Vivita mhm. ñu ngi point E Ngor euh, soo fa demee rek ñu daal di lay jaay li nga xamante ni mooy ticket yi maanaam daal point de vente yi bëri nañu fi mu ne nii yéex ñàkk la yéexati ah, ah. romb tiré romb tiré kon nag euh, dañuy daal di ñëw rek euh, Awa Gaye tey nga indil ñu carotte nga daal di jaune comme carotte macha allah catuwuma la nag. sama rakk ji nga daal di nekk une petite princesse avec ta robe de princesse ah. daal di sii kii taay fiin daal neex na. ay man kañ lay doon taay fiin <laughs> ah yow de yow de sa bi nga man ah man ah, waroon naa fekk man daal bu ma amoon sa taay bi wala taayu ñaatam bi rek moom xam nga maag ma doon moom ñun ñoo bokk kër ñun. maag ma doon ñooy demalante kër. ah i ah i muñ muñ muñ muñ. tey loo ñu indil. Euh, kon euh, tey euh, beauty in my kitchen maanaam beauté dans ma cuisine. Mhm. dama dugg si biir kitchen bi ma daal di gestu sama gauche nag. tey gauche laa gestu gis carotte. Mhm. Ah, ma ne ko déjà tey damay maquillé wu comme carotte def orange base bu orange un peu. Mhm. parce que tey li may waxtaanee dafa neex. Euh, dafa baax te cherul tey mm-hmm. yomb na mm-hmm. te euh, nee naa leen euh, si biir waañ bi la ñuy wéree si biir waañ bi la ñuy feebaree waaye si biir waañ bi la ñuy taaroo itam mm-hmm. you know moo tax tey li nga xamante ni mooy carotte bi nga xamante ni ñëpp xam nañ ne nutrients yi nga xamante ne mi ngi ci euh, carotte mm. euh, carotte euh, presque bépp xeetu vitamine mi ngi ci carotte am na voilà am na um, ay minerals mm-hmm. am na ay ay ay ay ay ay ay protéine mm-hmm. ay carbohydrates yoo xamante ni mi ngi ci carotte bi nga xamante ni um, dañ koy faral di consume mm-hmm. am na ñoo xamante ni dañuy jël carotte bi togg ko ba mu ñor si suñu ay si suñu ay li ñuy lekk loolu c'est normal su fekkee ne am um, da nga bëgg carotte bi pour nga am euh, euh, vitamine bi ci nekk. Mhm. mu nga ko def euh, waaw nga bañ ko perte. mu nga ko mhm. def half and half maanaam du ñor mu nekk si diggante bi. ñorul ñor na. waaw loo xam ne mun nga ko yëy parce que du ñëpp a mun a yëy carotte bu bu dëgër bi. Mhm. Euh, maintenant euh, aussi euh, euh, dafa nekk loo xamante ni euh, am na ñoo xamante mun nañ ko def jus. Mhm. jus de carot c'est très simple da nga koy jël daggate sa carotte raxas ko ba mu set am na ñoo xam dañuy bëgg di li carotte bi mais li gën a advisable mooy soo ko mënee raxas ba mu set peut-être nga xaw a dindi partie yu tilim yi nga mun ko lekkee noonu parce que carotte mun nga lekk tout. Mhm. everything si carotte bi su paasee bopp bi noonu lépp loo xamante ni mi ngi ci carotte bi war nga koo mën a use nga nga nga seet ko soit nga mixé ko oh, nga daggate ko def ci sa ndox mixé ko nga daal di jël sa seggukaay nga seggu ko waaye nag li ñuy advice li ñu lay wax mooy euh, da ngay naan moitié kaas par jour su fekkee ne jus nga ko bëgg def parce que su baree da ngay dem ba yow dangay ngay jaune mm. euh, à cause de euh, carotte bi à cause de carotte bi ferñeent yi nga xamante ni dafa nekk te dafay ëpp sax su suñu ay yaram noonu rek ñi nga xamante ni aussi dañu am ay problème sucre Euh, carotte dafa nekk loo xamante ni euh, baax na si euh, ñoom parce que fii ñu ngi la naan carotte baax na si sa gis-gis say bët aussi at the same time baax na ci sa um, blood sugar day level li nga xamante ne mooy sa blood sugar mooy sa sucre soit nga jabet wala nga bañ jabet carotte dina contrôle li nga xamante ne mooy sa sucre ndaxte am na un peu sucre bi nga xamante ne mi ngi ci carot balaa nga koy xam mooy nga togg carotte bi ba mu ñor boo ko defee pure dafay saf neex boo xamante ne c'est naturel euh, en même temps aussi su euh, fekkee ne da ngaa bëgg euh, garder sa ligne soit nga perdre poids wala man war naa koo jël <laughs> nga war tax kii di insister si poids boobu non temps yi dama yii temps yi dama kii damaa pataapu ñaatam <laughs> sax sànq wax na ma ko ma ne ko wax nga dëgg kon yow war ngaa mën a lekk carotte waaw et puis aussi euh, da lay jàppale euh, pour euh, wàññi de risque ce risque of am li nga xamante ne mooy cancer. Ah, dalay jàppale mm. bu baax a baax a baax ndaxte. Mm-hmm. bu leen fàtte ne aussi carotte antioxydant la boo xamante ni. Mm-hmm. dafa baax ci suñu wér gu yaram. Mm-hmm. at the same time dafay jàppale li nga xamante ni mooy sa blood pressure mu ne maanaam sa tension. je pense sa tension si jàppale. ak sa xol bi. sa sa sa rythme cardiaque right tamit is good for it. et puis dafay booster li nga xamante ne mooy sa immune system. Mhm. Euh, sa sa brain. Mhm. sa brain mooy. sa bopp cerveau. sa mhm. voilà de da lay da lay bu baax a baax ci li nga xamante ni euh, mooy sa euh, cerveau en même temps aussi euh, vitamine C bi nga xamante ni dafa nekk ci carotte loolu dama ciy taxaw tuuti ndaxte vitamine C xam nga ne dafa baax non seulement ci sa wérgu yaram waaye baax na tamit su fekkee ne danga nga bëgg am teint bu normal voilà at the same time lay jàppale ci li nga xamante ni mooy sa constipation parce que gis nga boo lekkut lekk bu normal normal da ngay am problème wu ak constipation donc carotte euh, mun na la si jàppale euh, ni koy utiliser Euh, li nga koy utiliser tamit euh, mooy que ne euh, bu dee da nga am problème constipation jus de carotte bi ma lay proposer nii bi ma lay wax sànq ne da nga koy jël nga def si ndox bi yem nga mixer ko soit nga boole ko sa jus d' orange wala orange naturel. Mhm. je préfère nga use li nga xamante ni mooy. Ah, orange naturel nga dal daggate ko wala nga nal ko def ko ci sa carotte bi. Mhm. nga naan ko voilà euh, xawma citron bi. Euh, gis gëstuwuma citron bi euh, mais su ki man orange laa gis. ak carotte bi nga xamante ne mën nga ko jël. nga daal di ko mixé nga naan ko dina la aider si li nga xamante ne mooy da nga am problème constipation. vitamine C la aussi. exact et puis da ngay digérer. am légèrement am na ci boo xam ne ni moom man tàmm naa tout le temps di ko def. da ngay mhm. jël carotte oh. gingembre daal di jël aussi citron. Mhm. nga boole ko mixé ko boo ci amee jus bi nga koy naan dafay daal di tax am mhm. li nga xamante ne moom mooy biir. et am na tuuti li nga xamante ne aussi moom mooy euh, collagène boo mixé trois euh, kii yooyu nga koy naan da daal di jox tamit euh, mhm. maanaam dafay xaw a reesal biir bi tuuti mhm. day tax sama genre gi ñun ñaam biir ñu mhm. biir yi xaw a yor ñu yor taay kii na mu tuddati sax Euh, biir bu plat waaw loolu tamit da si ba man moom damay faral di ko naan loolu moom sama secret la waaw ventre plat bi je damay jël carotte mhm. jël jinjeer mhm. jël citron mhm. boole ko ak moom miske ko ba pare daal di koy def jus daal di koy naan pourtant euh, loolu euh, detox la en même temps parce que ku xam li nga wax yëpp am na ingrédients yoo xamante ne it is very good parce que carotte aussi dafay act comme detox maanaam yi nga xamante dafa nekk sa yaram te waru eh, nekk exactly koy dindi et puis pour am teint bu clair li ñuy lekk lekk yëpp parce que teint bu clair ci wér gu yaram aussi mën na ci bokk su ah, fekkee ne euh, li ngay lekk ci biir euh, la sa teint bi di euh, di ñëwee pas li ngay diwoo pour am teint mm. mais it has to be inside parce que internal glow mooy feeñ ci biti loo diwu diwu te amoon internal glow ah. mënuloo am that glow mm. carotte nag li muy def ci côté boobu noonu mooy que ni gis nga bu la détoxé. Mhm. Euh, amoo constipation. déjà doo am ay problème ay acné. Eh, mhm. parce que sa deret su kenn setul et di nga am ay problème ay acné am yenn. bul tax ma dem jënd ji Sénégal yi yëpp commencé <laughs> mais loolu loolu laa lay wax aussi foofu laa bëgg taxaw parce que euh, mhm. tout le temps dangay joxe ay astuces am nga gis ñoo xamante ne dañ koy abuse. Mm. voilà too much of everything baaxul boo ko mm. utiliser excessivement. moom lay wax sànq da jaune. Mm. jaune boo xamante ni. Euh, feebar la boo xam ne après euh, temporal oh feebar bu temporal la oh mais euh, waroo utiliser carotte bu ëpp surtout fekkee ne danga nga koy def jus oh euh, li ma bëgg a wax aussi mooy par rapport ak sucre bi nga xamante ne dafa nekk ci carotte carotte am na li nga xam ne mooy mooy bi nga togg boo ko toggee ba pare am na cinq grammes Euh, sucre. carotte am na 5 grammes. ak cinq 5 grammes de sucre at the same time am na li nga xamante ni mooy douze grammes de carbo carbohydrates euh, bi nga xamante ni euh, baax na si suñu wér gu yaram parce que da koy équilibre at the same time waaye yéen ñi nga xamante ni aussi da nga bëgg wax dara. waaw dama bëggoon wax rek li li xale bi wax am na solo lool. sama genre gi bu ñu toggee carotte ba ca ceeb ba ñu dem sànni ji ko ca mbalit ba légumes yi léegi yaakaar naa ne nag xanaa loolu war nañ koo bàyyi oh. ah, sama genre gi ñun moom ceeb bi rek la topp di ko lekk bàyyi fa carotte ba bàyyi fa suppamer bàyyi fa légume ba tey ni ngeen déggee awa wax ci li nga xamante ne rek moom mooy carotte bi yaakaar naa ne ku toggati carotte moom mm-hmm. euh, di nga parce que am na ñoo xam ne bugguñu carotte bu ñu baxal bi des du ma lekk légume yàlla dëgg la bëgg waaye ku ma tegal ndawal ma lekk ko ba mu jeex. right léegi nag euh, carotte par rapport ak li ngay wax noonu ka am na ñoo xamante ne dañ mhm. xam nga ne moo ëpp ferñeent. waaw bu ñorul bi nga xamante ne ba ko baxal ba mu mhm. euh, mm. ñor. you know mun nga ko def euh, mu xaafan xaaf. nga sotti ko voilà nga sotti ko wala dara mais booy tëdd am na ñoo xam ne dañuy defar def couchon. Mm. you know jël couchon cereek meew wala leneen ak leneen. Mm. the best couchon boo mënti jël mooy jëlal carotte soit benn doom bu ndaw wala mu wàcce carotte nga daal di koy yëy euh, mun nga ko dem gëstu nga xool ko sur YouTube wala fen dina la wax exactly parce que euh, bu leen fàtte aussi que ne euh, guddi bu yaram bi relaxé di nelaw mm. ci lay développé feebar mm. ci lay développé wérgu yaram mm-hmm. ci ngay amee taar ci ngay amee everything guddi la yaram di process mi mm-hmm. bi mu koy jox mm-hmm. exactly kon boog mi ngi noonu carotte dafa baax aussi ci li nga xamante ne surtout ñun jigéen ñi dañu am problème hormone you know dañu am hormonal pro hormonal problems loolu karoot euh, mën na la si jàppale euh, néew noo koy defee mooy euh, soo mënee râpé carotte bi mhm. râpé ko mhm. nga toog nga mélanger ko ak soit concombre wala yooyu yaay seet nan nga ko bëgg a ah, mais pas gras mhm. pas ay mayonnaise ay yooyu noonu mais nga mélanger ko ak salade wala sa benn affaire nga di ko ah. yëy nga nga di ko lekk ah. max benn yoon par jour nga def ko benn deux mois Euh, digma remercier parce que euh, gis naa ne aussi euh, lu baax la bu dee nee am da nga am problème mu ne comme mm. ay sa peau et tout voilà vitamine C bi ci nekk ak yeneen vitamine vitamine K1 bi mm-hmm. da ngay jël carotte bi nga gis nga boo ko râpé ba pare. Mhm, ndox mi xam nga day kii. Mhm. nga bàyyi ko ba mu toog noonu. Mhm. bu dalee. xam nga bu dalee karo bi day bàyyeeku. waaw waaye bu dee da nga ko râpé noonu si saase. dafay sec uh, xaw a tooy dafay dëgër. waaw dafay dafay muus en fait. voilà léegi boo ko tegee noonu nga bàyyi ko tuuti xam nga dafay mel ne lu xaw a reposé wu. la nga mun a jël nga nal ko. ba mu ba ndox mi génn wala nga am loo koy pressé ba mu génn. nga jël sa coton di ko def si sa. Um, bouton yi et tout mais. bu ko def tout le temps. Mm. waaw parce que excessive of everything is not good. il ne faut pas abuser quand même. exactly mm-hmm. kon xam naa ne mun naa fi nekk di fi wax ci carotte. carotte carotte ba suba euh, parce que dafa bari tellement carotte ci sa bopp ci sa karaw ci say ongles ci sa lépp ci sa si nit la bokk nit ku nekk war ngaa mun a consume euh, carotte à euh, tous les jours. kon nag jërëjëf Awa kontaan nañ ci yow si li ñu indil Fatou dégg nga li wax yaakaar naa ne boo toggatee carotte ba di ko daal di jël lekk ko. Euh, kon nag dama laan di daal di fàttali Teranga Sénégal numéro yi nga xamante ne moom ngeen ñuy jotee boo leen di jotee ñu jox leen si li nga xamante ne rek moom mooy maye bi ñu leen di may waaye ñu tuddee ko tamit cadeau euh, numéro yi nag ñoom lañ leen di fàttale ak suñuy euh, partenaire bijouterie La Solution ànd ci aussi ak Adja Ombelico ànd ci ak aussi waa Cabirex kon nag ñoom la ñu àndal suñuy partenaire numéro téléphone yi ngeen di jotee pour ñu leen ci xaalis bi 88 le 628 65 65 88 le 628 88 676 05 05 88 676 07 07 88 676 03 03 88 676 06 06 88 628 76 76 88 628 20 20 ci numéro téléphone yooyu nag mun ngeen ñu ciy jot ñu jox leen li nga xamante ne rek moom mooy xaalis bi ñu fiy maye ne woon naa leen sànq 250 000 waaye nag yokkaat naa ci Euh, cent mille bu ñëw woo boo leen wootee rek euh, bu ma leen laajee rek ngeen trouvé question yëpp ma yëkkati enveloppe bu 300000 bi ma daal di leen koy jox kon gaaw leen gaaw ngeen jot ñu ci numéro yi ñu bégal leen daal di leen jox li nga xamante ne rek euh, moom mooy maye bi leen di defaral fii si Télé Futurs média dimanche bu jot nag Pape Cheikh Diallo dina def tirage boo xam ne nii looyu mag yi foofu lañ koy maye ku ñu woo tamit jotooñu xam naa ne di nga am chance parce que numéro yi ñu jot a woo jot ñàkk jot moom la ñuy jël tiré ku génn rek ñu woo si ñu ne la kaay nga jël si li nga xamante ne rek moom mooy sa cadeau Khady Mbaye moom xam naa ne moom ku la joxoon ngalam bi nga bég de. waaw man ngalam moo ma gënal beneen bi mooy fii ma taxaw ci plateau bi dama fee am lu ma naqari. muy lan te nag euh, euh, dafa am loo xam ne dañ koy wax mu jeex. Mm-hmm. ah non du yow léegi may ma rek balaa boobu tegal ma fa sa baaxam am na ku nekk ci ligne bi dafa am ku nekk ci ligne bi voilà baal ma jël ko su ma ñëwee rek nga wax ma lu la naqari ci palaato bi ma xoolal maa la koy fajal allo allo oui allo allo oui allo oui salaamaaleykum soxna si maaleykum salaam ça va. waay waay yëkkatil sa baat tuuti ma dégg la ma mun laa may xaalis bu bëree bëree bëree bëri. ça va ngi si jàmm. sant alhamdulilah. kookan la noo tudd ak foo ñuy woowee. Adama Fall. Adama Fall Fall Njaga Yaaram foo ñuy woowee. Jëppal. Euh, Jurbel. Jëppal Jëppal ah Jëppal. Mhm. Ah, ok ana waa Jëppal foofu de moom ñaatam miin na fa quartier am la xam na Jëppal bu baax. allo. allo oui. waaw ma ne ñaatam de miin na Jëppal xam na fa bu baax a baax. Hmm, Mbaadu. maa la wax li yaa ngi seetaan. bon instant bi nag dama fay télé pour ne pas kii. waaw parce que munoo waa yow naan di te nga nag yow lii moo tax nga neex ma ña Fall Ndiaga xam nga na la ñuy def. Ah. léegi dama bëggoon rek nga wax ñu partenaire yi nga xamante ne ñoom lañu ñu àndal si maye cadeau bi. bon allo. waaw ma ne nga wax ñu partenaire yi nga xamante ne ñoom la ñu àndal si maye cadeau bi cadeau yi ñuy maye partenaire yi ñu ci yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu ciy gunge neexal yëf yi. eh. bon ma waxal ko yan partenaire mooy ñi may xaalis bi wala. xam nga dafa am ay partenaires yu ñuy àndal léegi xam nga lan la ñuy def waa d'accord comme te loolu dafa sori léegi Télé hmm? Futurs Médias ñaata la teg ñaata la teg ci xaalis atum ren bi ñaata lañu ñu nar a maye. dix millions. waaw ah déedéet trouvé woo mais ba tey dinaa la may bul bul quitté dinaa la may dama la bëggoon may trois cent mille. léegi xam nga nan la ñuy def. Mhm. Euh, ren moo nekk suñu ñaata ñaata édition. Euh, cinquième. cinquième. waaw yow nag xam nga na lañuy ñuy def euh, ba tey jii nii. dama lay may fukki junni si question yi nga xamante ne trouvé parce que ren moo nekk suñu quatrième édition non euh, du ma ko may 25 bàyyi ma may ko 50 000 léegi may naa la fukki junni dégg nga bul quitté Eva dina la jël wax la nga daal di ñëw jël si sa fukki junni dégg nga. d'accord merci. ok merci beaucoup kontaan nañ ci yow lu bëri. ñu daal di soufflé tuuti dellu si waat si plateau bi. macha allah wëndeelu bi neex na Mado neex na. Awa Gueye neex na ñaatam neex na Mado neex na Khady Baye. maa la wax leen maa kontaan si yéen ah. waaye neex na sama benn yaay. tu as en bonne forme. noonu la ñuy wax. Euh, waaw aujourd'hui bi tam. waaw aujourd'hui pour tey la. waaw tey tey tey dafa am. terme nan lañ koy waxee yow corrigé ma non. <laughs> <laughs> dama am énergie tey dama am énergie waxal tey dama am énergie. voilà Oh, merci pour man daf ko naan tey da nga am forme. moo ma jeexal oh non baby girl it's my friends what are you talking about. <laughs> amoo loolu de amoo loolu de. waaw sànq lan moo la metti ma fajal la ko mbaaye li ma bari na lan la. mais eh, eh, nee na eh, gis nga. waaye mburu bi ku ko fi indi. <laughs> mburu bi. <laughs> mburu sax am na ci kër gi lii tam. Ah, xaaral ma jox ki moom ki moom mburu mi laay jox. Ah? waaw baal ko rek. non dina ko li la ci metti naa la ko fajal si suuf. kële si mbedd mi moo ko moom jox ko ko. waaw di leen fàttali rek euh, si li nga xamante ne mooy ticket Youssou Ndour yi amul kenn kuy liggéey Télé Futurs Médias koo xam ne mën na la may billet dama bëgg mu leer parce que da ñuy sonal ku ñu fi may billet rek dañoo jënd billet balaa boobu dem leen gaaw xam naa ne fii ba billet yi day fay jeex parce que li si des bareetul dem leen si suñu point de vente yi nga xamante wax nañ la ko ñaatam nga fàttali ñu point de vente yi waaw point de vente yi bëri na Bessel yi fu ci nekk rek mën nañ ci dem TFM RFM ak fi nga xamante mooy cosaan fii ñu rek macha allah suñu showroom Andoury ak Electronic Corp également rapido moo gën a gaaw lépp loo fa jënd ñu yónnee la ko léegi mm, ñi ngi fa également ak magasin Subeco ak Carrefour li ci gën a neex mooy 3w point teoticket point com nga daal di am sa code QR nga xamante ne da koy scan juste ci photo bi daal di am sa passe ngir dugg ci foofee nga xamante ne mooy euh, esplanade bu Grand Théâtre ak Youssou Ndour rek de Dakar nga nar yow Euh, la 6, euh, je te donne rendez-vous, euh, mais euh, je te dis en français wala en anglais ou en wolof. bu la ci neex rek non non bu leen sax bu bu ma ci neex rek. bon euh, je commence par français et puis euh, you know wax ci yeneen yi ma xam. par l'anglais. voilà donc le 6 incha allah rabbi. Mm. je m'habille en mm, basket. Okay. en sportif basket, basket mm -hmm. parce que c'est important nga xam fi ngay def. fi ngay mm-hmm. def lan la. Mm-hmm. tu vois après di ngeen. ngeen ma gis TFM ak IGFM. Euh, yéen ñi nga xamante ni yëpp euh, namb ngeen wax seen xalaat ak seen yaakaar ak seen lépp ci at bu bees bi. Mhm. Euh, préparé leen ko parce que dinaa ñëw ba ci yow dëkk la micro nga wax Youssou lu la saf. waaw après aussi nga wane sance yi tamit lu am solo la. of course sañse yi bu mu laa expliqué nii def basket et xam nga dox def sa t-shirt. ñii ñëw ci Youssou Ndour bi ngay wane seen sañse waxuma yow sa sañse de man sa sañse dinaa ko gis mais man ñii ñëw. <laughs> mais ñoo ma ñoo tax a dem. baby girl bi laay tey am desel am na lu xewit ndawal bi. salaamaaleykum. waaw. ana laa toog. ma sudee. jantum. loo alhamdulilah. mbir yëpp ci yàlla ka eh, yëpp ci yàlla léegi danga may wax noonu Youssou Ndour bi noonu man sama mbokku Pula Fuuta bi. su ma buggee ñëw si soirée bi nan laay def noonu parce que man il faut ma dem baali Youssou Ndour. ah teel a mhm. parce que nag bu fekkee da yéex a ñëw. Mm. di nga ñàkk place. te bu ñu naan baal baal balaa neex na nga jàkkaarloo ki nga xamante ne moom moo woote ca bés ba. Mm. muy way ngeen di pelloo. Mm. kon nag na ngeen teel a sañse teel a ñëw parce que cette fois ci c'est en ville te xam naa ne yéen miin ngeen ko. boo leen bañ a am ay problème d'embouteillage à partir de huit heures leen fanaanal dem taxaw waajal li nga xamante ne moom moo di grand day créer am ba pare nag weekend lay doon yëf yi dafa nar a neex ngeen ñëw enjoy seral seen xol te xam naa ni wayi naroon génn ñi nga xamante ne namoon nañ ko waroon génn fee te génn fa gëm naa ne dina génn fi kon nag nangeen def ni man sañse waaye juste tam rek ne sama benn yaay boo xamante ne yónnee na ma vraiment message et elle nous dit qu'elle nous adore ñu ngi koy ñaanal lépp waaye de par moi va ñun ñëpp maman ñu ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire. Mm. elle s'appelle maman Aminata Ndiaye ci Médina rue 19 angle 4 we love you. Khady Mbaye am am alam lébu. yow mm. aaka dem foofu aaka sol la ama wax yow aa dem Youssou Ndour yow aaka def foofu. man alam lébu waaw. te te te maanaam Sidi Kane àllëp lépp mhm. waaye euh, euh, Adja Adja euh, mm, Sini Diop àllëp lépp mhm. Sidi doomu ndayu Youssou Ndour la mhm. ñoo yëkkatandoo ñooy tëralandoo sama mag jooju kon man soo ma waxee lébu damay kontaan ba léegi damay daal di def du ma def baa ak o wala ma def ma dem ci. non oh. barke yonent bi. porte plainte laa lay def. non non non damay ñëw dëggal sama bopp. bu baax. ànd ak si mère couple wallaahi mën naa ñëw sa ak sa oo. ak sama oo la wut day tëgg Youssou tëgg day tëgg. day tëgg. day tëgg bu bu mën a wëre. Youssou di la tëgg <laughs> jongo maa noppal ma ndeysaan ndeysaan euh, euh, euh, Bessél mhm. damay mën naa jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñoo ma dama lay bàyyi sax nga awaale noonu daal di tàggatoo souhaitel ma sa sa rakk yooyu anniversaire waaw xam nga Jano Couture gudd fan ak wér amin amin mhm. amin sama nga Jano Couture mhm. moo ma jox li nga xamante ne mooy vaisselle yi ma accompagné macha allah booy wax vaisselle day mel na nga naan vaisselle la rek janoo couture vaisselle ak mi ngi noonu janoo couture ku bëgg ci euh, ki euh, ku bëgg ci li nga xamante ne moom mooy vaisselle yi mhm. da ngay daal di def cent cinquante 77 559 61 26 mais yëre bii ma sol mhm. sama rakk ji moo ma jox cuub bi waaye Porokhane couture sa doomu ndey dëgg la soxna jaara yetul sox sax soxna jaara ca rond point cyprès bu tëngee ci mhm. moo ko dagg macha allah kooku numéro am da ngay daal di def 78 388 05 18 mais ndumbe mi jaxe pigeon yi nag ah, macha allah hmm? ba pare pigeon yi yi ndaw mi ngi noonu ak gërëm ñeel la ndumbe hmm. ma ca Zac Mbaaw hmm. ca sorti neuf ku bëgg a jokkoo ak ndumbe mooy borom épices yi ak borom jus yi ak borom dibi ginaar yi da ngay daal di def 77 245 86 86. 86 nga woon numbe 86 waaw mais dama am yaay joo xamante ne moom laa ko yekkal nag. sama yaay Ulay Caam ah. ca Cambérène. waaw chéri papa papa Ndiaye. Mm-hmm. kooku mooy yaayu Fatou Ndiaye. Mm-hmm. ca London. Mm-hmm. kooku mooy yaayu euh, Ami Ndiaye. ma nekk di diwaanu Paris. waaye nag ki nga xamante ne. moom mooy sama doomu ndeyu rakk moom mooy awaloo. dafa nekk ak moom ca Italie. te bundu xataalu ko benn yoon. awaloo je t'aime très mm-hmm. fort. waaye ñan ngay souhaité sama xarit doo leen euh, souhaité Anta Mbaye gisaguma ko sama rakk ja ca Espagne. sama ah, rakk jaa ngi nii bu leen ma jooyloo. ay ah, yow de rakk juma def yaay. macha allah rakk juma téye. Mm-hmm. rakk juma respecté. Mm-hmm. nee na ma na ma àdduna yëpp bàyyi. ndax nga téye ma. soo ma téyee mel na ni àdduna yëpp ma téye. dëgg la daf maa def yaay. yal na ko yàlla may gudd joyeux ah, rafet. chéri Ousmane Mbaye. waaw yaayu mama. Mhm. yaayu Mouhamed mhm. Gueye. Mhm. Euh, yaayu yaayu ah, ah ah Ndeye Aram. waaw bala ko du sàkk ndaari mi ci ndaari ma ma mbiri mbaay mi ñu oh. jaawale ko guur buñ naan njaay ndumbe dégg sama rakk ju ma bëgg da ngeen ko wax léegi ci yuusu mais moom Mamadou Mbaye Badou Boy Maguette Mbu Cécile macha baay dama leen di ñaanal. waaye keneen ki indil ma keneen ki sama beneen. indil ma keneen ki. waaw. <laughs> sama ah. beneen ñu ci daan yéen <laughs> Fadi nag dëgg fa yàlla nag ci yow laa rangoon waaye man léegi banaa maa ngi ci ñii. yaa wax lii maa wax lii. est-ce que du li nga tàmm sama kanam. non non non maa ngi ci ñii. kii. Mhm. mooy sama banquier bi nekk euh, diwaanu France. borom nant mhm. màgget mbuub Ablaay ku jagay ñu ci dàngu mhm. sama rakk yi dama leen di ñaanal yàlla may leen gudd fan te ñu wér ñu rafet ñu dàq la <laughs> d'accord na <laughs> ci. d'accord naa bëggul nga kii rek. waaw léegi d'accord amul problème amul problème amul problème. amiin amiin amiin lañ doon wax sànq rek mag moom mooy topp rakk daal di ciy mm-hmm. topp te rakk boo xam ne nag tamit waaye mag bu ginnaawam liisee ginnaawam ñagasul. bu mm-hmm. bootee ay rakkam rakkam yi dañ fay nangoo toog nag loolu tamit c'est important. Mm-hmm. kon lépp mbaax mi tamit yow la. ma belle Mado. ah sexelu maam soxna. noo def. ca jàmma maa nga ca jàmma Madou Anko Mbaye nit to da en tout cas di remercier waat bu baax mbokku téléspectateurs yi di la remercier Bessel ak ñi nga xamante ne ñoom laa bokkaloon plateau bi di remercier au passage madame Diatta de Sunutar jour boobu moom moo ñu embellir euh, ci soirée bi ah, donc mooy sama nawle donc je la remercie du fond du cœur et puis nag di remercier encore première dame de son humilité de sa présence de sa gentillesse et de euh, oyof gi mu wone en tout cas man vraiment ovation à elle elle reste vraiment une grande grande dame et une vraie sénégalaise kon ñu ngi koy bëggal bu baax a baax. merci madame. <laughs> love you my sis. sama bopp bi maa ci ñëw nag tey loolu tax ma am. énergie <laughs> merci damaa neesu. damaa dellu tey ba may am 16 ans. nekk xale nekk xale delluwaat nekkal xale quoi. macha allah xale mag laa nekk. Mhm. waaw sama rakk ji. comme que tey waaw yow tey da nga carotte. waxtu bi jot na. léegi nag man damaa yónnee vie benn vidéo en attendant may tàggatoo comme ça ma dugalal ma ko ma tëjee loolu. waaye en attendant damay souhaiter à happy new year parce que bi at bi commencé ba tey ñu ngi soog a defaat plateau. Euh, dama leen ñaanal yéen d' abord. Euh, yàlla may leen gudd fan ak wér. Euh, lépp loo xamante da ngeen ko bëgg en mu gën si yéen gën si ñun ñëpp yàlla nañu ko yàlla defal si barki Seydina Muhammad sallallahu sallam yàlla yàgg def jàmm si kër gi. parce que nit ki ngay yeewu ñaan yàlla jàmm ak salaam. Uh-huh. Uh, di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam. Uh-huh. you like it baby. tu m'as du bleu ou bien ñaata aussi mascara bu bleu wala. non non man man man je mets du bleu. Ah. Euh, je mets du bleu. Euh, oui je mets du bleu mais un peu de carotte ok voilà. Mm. Euh, waaye nag bu leen fàtte ne Eddy Luxe maanaam man dama am boutique bu bees may ñaan sénégalais yi gambien yi ñëpp ñëw jàpp si. en tout cas daal tuuraay yi <laughs> neex. loolu moom dama koy parce que dama ko ñam naa ko goûté naa ko daal tuuraay boo ko taalee kër gi yëpp day xeeñ macha allah man ah, bañ na ko ba sama kër sama yére sax da koy xeeñ bi nga ñëwee nii di ma akalaat ah, ñaan ñëpp nañu ñëw fële ne la ci ah, côté hôtel Yoff Océan mhm. wala ngeen wooñu ci 78 455 91 91 pour bépp xeeñ xeeñ neex boo xamante ne intérieur la soit sa kër sa lal sa drap sa lépp mun nga ñëw foofu noonu prix yu abordable boo ñëwee incha allah dinañ la defal ba mu neex et puis dinañ la accueillir bu nice a nice a nice euh, kon boog euh, bu leen fàtte ñëw leen jàppale ma comme ni ngeen ma doon jàppalee rek ba tey euh, kon boog di leen wax thank you so much vidéo bi su fekkee ne pare na rek xam naa ne bu ma ko dugalee kii di xaadim xaadim kase xaadim oh. kase dama koy voilà moo nekk nii mhm. nekk nit ku oyof mhm. nit koo xamante ni xanaa bañ ko xam waaye boo ko xamee nga xam ne nit ku oyof la nit ku baax mhm. di ko ñaanal gudd fan ak ak wér euh, ndaxte tailleur yi dañuy dem ba xaw a siiw tuuti ñu beew euh, waaye xaadim booba ba tey euh, même ko respecté nit ñi mm-hmm. fi mu nekkoon bi mu commencé ba tey fu la nekk foofu la ko ñëpp di ko fekk mu nekk nit ku yaru nit ku humble mm-hmm. man bi ñu takk sama rakk Anta mm-hmm. laa koy soog a xam mais dafa mel dama xamanteek moom lu yàgg yàgg yàgg yàgg xaadim dina jël léppam def ko ci donc man ah. dama lay ñaanal si sama tur ak turi waa TFM yëpp ma lay ñaanal gudd fan ak wér doomu ndeyu xalif Khalifa Mbergane waaye doomu ndey Clara euh, madame Kay euh, kon euh, Khadim happy birthday and I love you kon boo ko mi ngi noonu Bessél eji luxe rek na gaa yi ñëw. jërëjëf kon ni mu ko waxee ci Khadim Kassé moomu ko baloon robb ba nga xamante ne bi ma ko wiyonee ci QG quartier général Sénégal ñëpp dañu signé woon kon nag Khadim Kassé kontaan naa ci yow. jaajëfal la lu bëree bëree bëri kon ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire ni ko ki nga xamante ne Awa Gaye waxee ko mbiɗa mbi dara dama <laughs> ah, mi ara noon e debbo jontaɗo yeeso ɓalewo joom suudu joom uh, guise joom teddugal on wiyete ko ñatamba hande kam ɓayri ka har pular ko pular ka sow bamma ko ba an aɗa andi ka pular 100 pour cent mhm. na waaw yonon mbiɗa an a nanani e pular dëgg la e mi nani pular mi nani pular seeɗa tan seeɗa tan eyyi joni ñatam an ko maa ngi ziar di delluwaat di comme e, niñ ko waxee rek remercier ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñu doon seetaan ñi ñu bokkal plateau bi yàlla defal leen jàmm ci atum 2024 point dafa am fu ñu koy tegee teg yëggoo fa waroo taxaw fii laa koy France day yegg man moom sama français bi fii laa koy tegee kon yow kon yow ñaatam aar ano nani pulaar joni ko min mbi samina haalama yow nga wax ni dëgg la de besel tey ah <laughs> perruque bi la tey parce que tey dama nekk dellu nekk xale. man j'adore quand tu es comme ça. ah quand je suis comme ça oh. <laughs> voilà continue voilà. merci vas beaucoup di remercier euh, bi mi ngi ñuy seetaan nee na nañ ko jox ci xaalis bi macha allah yow yaa ñuy dolli waaye tamit di remercier Koura euh, bu Prunel merci également ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñu doon seetaan maman Lena yàgg fi lool te ànd ak wér depuis Kaolack sant ñëpp gërëm ñëpp rendez-vous tout à l'heure on terminera la semaine incha allah sur la radio Futur Média à partir de 17h jusqu'à 18h sinon restez avec les programmes de la télévision Futur Média tu m'invites à la radio. bien sûr pourquoi tu es belle. da ngay gis naa la la tap bella c'est-à-dire la tapis de robe robe <laughs> robe là. ah c'est ça oh. merci beaucoup eh c'est ça oh c'est ça merci. toi aussi ça suffit tu en profites pourquoi. eh il faut ci yow. Adja. ah waaw. nee na dafa dégg ngay wax maanaam eh, xeetu baax baaxu xeeñ. Ah. il mu jàkkaar mu jàkkaarloog yow. amul problème ngeen ngeen ngeen fës. ñu felloo incha allah. ma tegaale à côté sama. non dina ñëw ci ñun ñëpp lay ñëw. kon nag. ba euh, pare sponsor yi euh, mad yow euh, ma leen. waaw Oumy Diagne borom délice mag na ñëw. waaw kaay leen kaay leen nag kaay leen kaay leen kon nag comme ni nga ko waxee woon rek cadeau la ñu wax sànq ba léegi ñu ngi doon maye ñu àndoon ak yéen ci seen émission seetu bi àndoon nag avec mes belles dames comme ni ñu baaxoo di ko defee rek jeudi bu jot euh, plateau bi ñu may xaalis continuer leen di woote euh, comme euh, continuer leen rek di woote boo leen woote même boo leen ñu jotul numéro yi dina dem tiirage bu demee tirage Baye Cheikh El Hadj Pape Cheikh Diallo moom dina leen jox li nga xamante ne rek moom mooy seen cadeau te gros yi foofu lañ koy joxe ñu ngi souhaiter rek joyeux anniversaire nu mu tuddati fàttali ma tur bi bébé Kenzo voilà donc ñu ngi koy ñaanal gudd fan ah donc dugal ba tur bi sàmm la nga daal di daal. la buntu àjjana nga daal di fay voilà moo ngi noonu doomu. waaw ah, non ah yow xale bi macha allah macha allah macha allah ah donc euh, Kenzo ñu ngi lay ñaanal gudd fan di la ñaanal wér ak wér le yàlla màggal la may la sutura ci baak Seydina Mouhamed euh, kon nag noonu lay jaaree tamit di souhaiter suñu seex yi euh, kooku di Awa Bass Bassa Touba Bass Gaynde ak Adama Bass Bassa Touba Bass Gaynde Drissatu Senghor Léopold Sédar Senghor de la République du Sénégal kon nag maa ngi leen di ñaanal joyeux anniversaire waa borom Djilor di borom Yaayem di tamit kon kooku di Awa Bass ak Adama Bass ñu leen di ñaanal gudd fan wér ak wérle euh, yàlla may leen jàmm may leen sutura jaajëfal équipe bi ma àndaloon yëpp nag dem leen gaaw jëndi billet Youssou Ndour yi ci vente point de vente yi nga xamante ne sànq ba léegi wax nañ leen ko amul kenn ku leen maye may ticket te ticket yi aussi bu jeexee mu mënuñu indiwaat leneen grand bal la ñu wax kon nag ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah très bientôt mais ci week-end bi ak Youssou Ndour le 6 léppay neex di